jërëjëf mbokku téléspectateurs yi yéen ngi seen émission Roffo di leen nuyu di leen siyaara di leen ñaanal yàlla euh, di wax ne yàlla mi nga xam ne mooy borom kattan te mayaat ñu kattan ñu teewaat fi sunu buur boobu ñu ngi koy euh, sant di ko gërëm bu baax a baax a baax. Euh, di wax asalaamaaleykum ku ne fa nga nekk ci sa salon toog di seetaan Roffo à travers le monde ñëpp ñu ngi leen di nuyu comme ni ñu leen ko daan defalee tey di talaata ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre 2011. fii ci euh, TFM ànd ceeg le grand technicien Moustapha Gueye comme ni ñu ko daan andee rek euh, ànd ci tey ak suñuy invité tamit euh, ku mel ni doyen Moussa Dia di ménager ba pare bokk ci andi sport dinañ ñëw ci côté yooyu yëpp waxtaan ci ak ñi nga xam ne mooy association bi nga xam ne moo sosu ci li nga xam ne mooy kuréelu média bi muy association boo xam ne dafa ëmb ay journalistes ak ay techniciens Eh, ci wàlli làmb ñoom dañu spécialisé wu ci làmb te loolu lu am solo la fa seeni cee bay seen waar ñoom it eh, tey ñoom laa dalal eh, kii njëkk a toog ci plateau bi di Cheikh Anta Seck nga xam ne moo nekk ci di journaliste ci tribune boole ko nag di chargé communication bi nga xam ne moo ànd ak association bi président Iba Kane dina jaar ci kanam tuuti moom it daañu waxtaan ak moom ci loolu ak ki nga xam ne mooy Roxoy Thiam di trésorière bi nga xam ne moom it moo nekk ci association bi mbokk téléspectateurs yi tey nag dañuy ànd ci li nga xam ne mooy lamb dimanche yi nga xam ne amoon na dimanche buñ ci jógee dinañ ñëw nag ci conférence de presse bi nga xam ne président Aliou Sarr euh, defoon na ko euh, ca siège u CNG ba euh, Baboy sortem bu njëkk di ngeen xool état de forme am lan la indiwaale ak combat bi nga xam ne taxaw na tey ci ngoon diggante Bombardier ak Tapha boobu tamit Luc Nicolaï taxawal ko ak signature de contrat bi nga xam ne Ousa Sow def na ko ak Boy Sarr ñu gënoon xam ci Khadim xam naa ak teggi na tax rek ñu teggi xaadim bi euh, ci ñi ko gënoon xam xaadim saar ñu indi booy saar loolu it euh, dinañ ànd ak yéen jeexale ko ak français mbër Moustapha maa ngi lay nuyu. rajo Ngagne maa ngi lay fay di nuyu mbokk téléspectateurs yëpp bàyyiwuñu kenn diaspora bi ñu ngi leen di nuyu di beral aussi nuyoo sama tonton Moussa Dia di nuyu aussi équipe bi nga xamante ne moo fi ñëw tey gane suñu nekk ay. journaliste technicien aussi ci làmb di nuyu Sénégal gépp euh, jërëjëf euh, Moustapha Guèye euh, doyen Moussa Dia ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa leen di fay di leen dalal di kontaan trop li nga xam ne ñu naa fi ci RFM bi nga xam ne Youssou Ndour mi nga xam ne dañ ko mos a bëgg bi mu nekk xale ba léegi dem ba am li kon dañuy def rek kontaan di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne moom moom te moo mën. mu gën koo mënal. Mhm. jërëjëf euh, doyen Moussa Dia di sunu papa sunu nijaay di koo xam ne dina dinañu gunge ci làmb ji euh, di waxtaan ak moom ci lu bari ci kanam tuuti daañu ñëw ci jaar jaaramu làmbam ak tamit toogaayam ci bureau ménager ak tey li ko fi tax a ñëw loolu yëpp ci kanam dinañ ko faram-pàccee. Euh, Cheikh Anta Seck maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ngañ mhm. di nuyu Moustapha ak sunu tonton bii toog fii. Mhm. di nuyu waa Sénégal yëpp te di la remercier aussi ci invitation bi nga xam ne. mais ngeen bokk moom nga ñu accordé <laughs> war a wax ci lamb ci ngeen bokk xam nga <laughs> euh, ñun yéen lañ fi toogal ñun yooyu presse bi. Euh, te yéen it da ngeen nekk ci yeneen branche du ci liggéey ci lamb c'est important heure boo leen soxlaa plateau bi duma ma hésité ñëw leen ngeen toog ñu débattre ci yéen parce que lamb ji dafa am lu te dañu bëgg mu gën a jëm kanam kon ñu ngi rafetlu seen teewaay fii tey euh, di féliciter tamit président Iba Kane euh, suñu jigéen euh, Rokhaya Thiam aw Maron ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak bureau bi yëpp daal ñu ngi leen di nuyu ci kanam tuuti dinañ ci ñëw Moustapha yaakaar naa ne làmb ji ñi ngi woon ci quatrième journée mhm. ñi ngi entamé cinquième mais dafa naa bi dafa xaw a jege ak tabaski xam naa nag ci ay ci la ñuy bër tuuti ndax bu ñu bëree tuuti ci la làmbi tabaski di commencé mhm. dinañ ci ñëw Euh, diggante fi nga xam ne mooy Ngunjaan euh, diggante Refon diggante Toubatul foofu fépp daañu fa ñëw ci làmbu tabaski yi incha allah rabbi ci kàttan yàlla bokk téléspectateurs yi dañuy dal di dem rek ci stade Iba Mar Diop dimanche ak Mounia production euh, ci diggante Tyson numéro 2 colonel Sagna ak yeneen combat yi ñu ca jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñëw seetaan ni dugg mbër yooyu nga xam ne ñoo daje woon dimanche di xale yoo xam ne gis nga chorégraphie bi euh, di insister rek ci tuus bi tuus bu sax bi euh, Moustapha ak Saaj njuug bi di ko dëggal chorégraphie c'est bon xëy na mën nga ko def rek trois minutes waaye su tuus bu sax Moustapha yëngal yaram nañu ñi mhm. yëngal seenam boole ji dañ ne tuus tuus échauffement la ci mbër tëbal échauffement la ci mbër njuug ak saaj échauffement lañ ci mbër donc léegi di ma xool nañ làmb ji léegi seet nañ pendant lu ëpp dix minutes gisuñu benn mbër bu tuus ñëpp dañoo def ay chorégraphe taas ki taas gin ainsi de loolu ñëpp di def donc mbër yi nañ dellu siwaat tuus tuus nag dafa ànd ak yëkkati sengor ca kaw jaayu tuus donc vraiment ñu ngi dellu siwaat xale yi daal seen xel waa wàññeekuwaat leen ngeen di tuus ba ci digg bi ngeen taxaw book daal def seen chorégraphe. Eh, jërëjëf mbokku téléspectateurs yi loolu dafa bokk ci loolu ndax tëggkat yi aussi eh, dafa am loo xam ne eh, dañ koy xaw a ñoom it xale yi dañ leen ci xaw a yóbbaale. ci tëggum li nga xam ne mooy faux lion boobu. simb <laughs> waaw tëggu simb bi ndax chorégraphie bi yëpp simb bi bi mu xawee dominer làmb ji la. Mm-hmm. ndax xale yu bari aussi dangay ngay calculer ne dañu jóge ci simb dugg ci làmb ji dugg ci làmb ji mm-hmm. mais nag bi ñuy ñëw état de forme yi la indiwaale ak peccum simba ma mm-hmm. moo tax mu xaw a ñëw xaw a yàqu ci tuus mais tuus mu sax ñu tëgg ko fi ñu ko war a tëggee amateur bi sax yaram yaramam bay daw am na mbër yoo xam ne fii euh, ku mel ni Mbaye Guèye du góom am na ñoo xam bu ñu daan seetaan am na ñoo xam ne sooxu Robert bi lañ daan xool bu ñëwee soox ak plastique bi jëri tànk yi ñibbi nañu bu màng ñëwee ba yëlëbu sànni bant fii sànni bant fee njug dem ñu ñibbi même ba ci euh, ñoom euh, génération bu xaw a bees bi hmm? ñoom Moustapha Gueye yi ñoom Tyson njugam boobu am na ñoo xam ne moo leen naa indi làmb yooyu yëpp dafa xaw xale yi ñu bàyyi ci xel euh, li ñuy def bonul waaye tamit la nga xam ne mooy aaday làmb buñ ko dindi kon mbokk téléspectateurs yi dañuy delluwaat stadium Iba Mar Diop seetaan fa combat yi nga xam ne ñoo amoon dimanche ak muñaa Production ngoone ndooy ministre bu jigéen bu ñaawul baa ngi mbokk yaayum amin taloo mbokk yaa ma woon njaay di ni toppal doomi gar mi yaa ngi ci yow muñ lu metti lool gore ba nu wekk la man daal dinaa fa ñëw ngoon ñëw naa fa biig ñëw fa barki biig gar gareeru maa école de lutte Doudou Baka Sarr Ould Taya école de lutte Lirou Diane Samba Ndaling wammi ñaari tànk yi si ki nga xam ne mooy Ould Taya Ould Taya moo ngemboo ngemb lu xonq li ku ne mépp sa morom moytu roofoo nañu kur tàkk na kur tàkk na ci ñaari boor yëpp ñoo ngay xeex dóor na ko mu daanu Samba Ndaling dóor na Ould Taya mu daanu Samba dollu ko mu daanu samba ndeliŋ a ngi waay samba ndeliŋ école de lutte Doudou Bakar Sarr samba ndeliŋ numéro 2 doonu uddu taaya mu wadd samba ndeliŋ gis nañu nga bëre bëre bu rëy dëggal sa bopp xeex xeex bu metti ak ki nga xam ne mooy wul du ba dóor ko mu daanu lu waral nga nangu xeex bi te mënoon wàcc song waa kii kii dama xam na li ma mbabat mbabatu ko man amul lu ma deful ci àll bi kii bu defee xeex sama entraîneur mu ngi nii chaque jour xëy rek la may jàngal waaye bëre moom macha allah kii maa ko daq a bëre fuuf bilaay ki kii dama amoon ne nii rek la mënoon a dem door ko mu daanu waaw ndax man dañ maa teg yaakaar écurie Doudou Bakassar ak Ngoundiane fa ma juddoo te lii mooy sama premier combat gars yi ñii ñëpp topp ma xam nga affaire bi nii rek la mënoon a demee nag arbitre baa ngi gis nga tribune yëpp yëngu nañu ku nekk sa mbër nga indi tey moor fi na neen camion tibb na suuf ñu ngi lewtoo tente nañ loxo moor camion xeex na rek moor pikin wàcc jël ko song ko camion lan saar ngemb lu weex moor pikin ngemb lu ñuul camion teena ca ngemb la wicc ko dafa dóor dënd bi foog naa juge daw nañu daje dënd bi la dóor dënd bi la dóor daan na ko c'est fini daan na ko jëli bi nga ko daan mooy ban jël sawaa dama daw jàpp si ngemb li xam naa ne njool la te njool boo ko mayee distance bu la dóoree ku kuwam baaxu si moom moo tax ma ñooxu ko bëgg sànni ko ma moom te li ma bëggoon bëreeg moom sax ko xool jaxran dama ko gis dama xool waaw bu kuu bi jóg sax damay daw jaar ci falaa yi bu di ko dóor suuf barke Serigne Touba seen ñu jokkeel bu Fatick jokkeel dóor na ko kur fañ fa wàcc ba tolloog moom dóor ko direct Lamine Koor a ngi fay jokkeel dóoraat na ko jokkeel daf ko xañ boppam xam nañu songkat la Lamine Kora ñemee dafa dox topp na ko xeexaat na moom daw na jël Lamine Lamine nooju na ko mu bañ Lamine delloo na ko Jokal war na ko ndombo Jokal Jokal dëpp dara na ñuy bëre laay laay la laa Lamine Lamine na ko Jokal jël na ko dëñ na ko Jokal daan na Lamine Kor Jokal daan na Lamine Kor mais Lamine Koor bërekat pire la lu mu bëre du lu ndaw de. Lamine dafa am lu mu waxoon. lu mu waxoon. mbër ma ne yow mënoo am ci man dara entraîné woo mais foog naa mbër bi nga xamante ne dañ ko jëlal entraîneur muy entraîné chaque jour li mu mun rek lay def. dañ ne woon dina ñëw indi la raak bul xeex bu koy xëy jiwet la moom. père maa ngi di sant yéen ñi wóor na yàlla. ko daane. waaw dama bàyyi ba mu déclenché. boo wàcc ndax nga jël tànk yi bagate ko. mais ñaari bëre. ñaari yoon da nga ko bi sax pour man daanu na looloo tax. waaw kon ñoom ak show. dama ne mu fekk ngeen bëre. lu tax première action bi eggale man yëg rek pour man kat ab yi am na loolu la tax ma rëcc bu deuxième man xam naa ne mun. sajju ak bëri. bi ma sama deuxième combat xale bu ndaw laa billaay walaay. ñaari victoire deux victoire maa daan total la. yaay mbëru ah? yaa indi Jokkel tey. maa indi Jokkel. loo ñaanal. ñaanal ko mu am ndam rek ci kanam ci kaw ci kanam rek. noo ko yabe tey bi ngeen di ñëw. tey yab naa ko lu bëri mais loolu duñ ko wax si rajo. waaw loolu moom duñ. noo gisee émission Roffo. monsieur Roffo jàmm rek ak salaam rek waaw jërëjëf. li nga wax jeex jàmm tànku ni joram jiital libidoor tànku càmmoñ. jeex jàmm daf mel ni dañ ko bul xeex bëree rek li bu daw na sóobu jeex jàmm dëbb na ko sol ñoo ngi xeex ku laaj sa ñàkk ku xoox ñàkk ku xaaddi ñàkk dëbb na ko li tibb na tànk ba xar ko mu bañ mu buddi ko pour yóbbu ko mu bañ cax kor na ko ndax mboot mi dina am ndax mboot mi dina am mboot mi amul li mu doon tax na ci tànk ba fa mu téye baaxul moom li mu doon dóor na ko jël bu rëy la ko daal daf ko jàllar bi jeex jàmm dañ ko jàllar bi combat bi yépp li mu door ko jëloon en en charge daf ko jàkkaar bi daf ko jàkkaar bi. Libidor gis nañu nga bëre. ñetti action nga bëri. waaw ñetti action laa bëri. laa dem dama dama dama kaa dugg. téye tànk mu bañ ma tuur ko mu bañ ma tegal ko seen mu bañ ma tourné fudd ak moom ma fudd ak moom si laa ko bële ak tuur ko mu daanu. mi ngi lay nuyu. maa ngi leen di maa ngi fay Agrofo. Agrofo maa ngi fay yaa ngi jëm ci bis bu rëy bis bi kañ la. ak ñan boole. le 30 octobre stade Iba Mar Diop Ousa Sow bu Fass ak Khadim Sarr Pikine Falaye Baldé drapeau Bara Gaye secrétaire général UJTL xoolal Tyson Toly mu andi ànd ak bul faale yëpp lii ku ñu jógee Pikine ànd ak moom ñu jógee ci gox bu ne ànd ak moom dana yokk mbër ci jom dina yokk mbër ci fit dina yokk mbër ci ngor dina yokk mbër ci mu sàmm ngaar mi jërëjëf mbokku téléspectateurs yi bi naaw bi ñu seetaane combat yi nga xam ne amoon na ci stade Iba Mar Diop euh, Moustapha yaakaar naa ne euh, ci combat bu njëkk bi Samba Ndeleng numéro bu école du Doudou Bakassar Euh, di wax gars yi tamit ñu gën leen bàyyi xel ndax euh, ça fait deux ans ñu ngi liggéey mhm. te Doudou Bak am na lu mu defoon ci làmb bu ñu ko utee école aussi euh, promoteur yi nañu bàyyi xel ci école de lutte boobu xale bi nga xam ne mooy Samba Ndeleng ak Oudou Taya bëri bi dafa bëri déchet ci xeex bi mhm. moo tax xale bële ki nga xam ne peut-être xeex du xeex du du du stylam dafa gëmm moo tax mu jël coup menton mhm. waaw booy xool combat bi ngañ dañuy gis ne dañoo taxaw di dóorante rek ba kenn daanu amu ci kenn ku ci joxe benn coup bu jub bu précis boo xamante ne mën nañ ne kii dañ ko dóor direct mu daanu ñu dañ ko dóor crochet mu daanu ñoom xeex bagarre de rue la woon donc nag mbëri yi war nañ leen dellu si waat ci ñu xool nga xool day gëmmoo li ñuy gëmm a dóorante rek de taille moom day gëmmoo ki gën a ñeme dóor mooy xool gis nga crochet droit ba ko dal gis nga na ba waa ngi daanu mu dóoraat sax si ngelaw dóor ci leer bi dem contrôlé wul sax ne adversaire ba daanu na. dafa doon yaram bi tàng nañu. waaw yaram bi tàng nañu ñoom dañuy li ñuy wax muy combat bu njëkk bi di wax xale yi tamit euh, xeex bi nañ ko xoolaat bu baax parce que tamit euh, waa ji dóor na ko mu daanu. waaye ci biir euh, déchet la ko xeexee moom xeexu mbedd comme ni Tafa wax. loolu tamit nañ ko xoolaat ci xale yi seen bëre comme camion ak Mor Pikine kooku toujours mooy géew bi pour suuf si barewul saa yoo dawee jël mbër bu la wetoo bu la sajee sa tànk ma nga ca kii ba. Euh, bâche ba waaw ma nga ca bâche ba. doo am appui <laughs> doo am appui. moo tax mbër yi nañuy moytu. Euh, bëre arène ak bëre foo xam ne fii du arène mbër dafa war a xam nu muy bëree ci fu ñu teg tapi ak fu ñu teg suuf suuf sa dëkku fa dañ ko fa indi. bokkul moo tax saa yi nga sajee xale yu bari daan nañ ci ci action yu mel loolu moo tax it dafa dóor dënn bi parce que looloo lay wan ne euh, du du action bee ko daaneel mais dafa glissé ca ba muy dem ci suuf point d'appui bi euh, moo tax mu dóor dënn euh, mais tamit adversaire bee ko poussé ci loolu Moustapha. moom moo ko wicc xaj. voilà voilà adversaire ko bipp. bipp waaw muy résister. donc tànk yi àndaale ci du appuyé. gis nga war a tànk ci ginnaaw voilà. mais pourtant nag ngañ. voilà les promoteurs dañuy di sant ñu def. de 10 à 15 centimètres de sable pour mbëri moom appuyer. mais dañ ko war a contrôler mais booy xool nag. du ko mat nag boo xoolaat. dañ ko war a contrôler 10 nag. voilà quelque chose la bu dee 10 à 15 centimètres. duñ mbëri ñu boobu mais nag dañ koy def noonu rek benn camion. ou gars yi sëkk ba mu yem la mais mais leen na. début saison suuf si du bari. ndox du bari. ah xam nga <laughs> boo njëkkee tëgg jënd ñaari camion def fa. Mhm. boo kii ñëw dañ ko naan dollil. tant que demuñu ba ay dix journée suuf si du bari carrément ci stade bi looloo tax nag boo yooyu tamit gars yi nañ ci bàyyi xel euh, ñi nga xam ne ñooy contrôleurs yi euh, na ko daan ko jiite le matin bu ñëwee day sonde suuf si gis naa promoteur yoo xam ne forcé nañ leen ñu wutiwaat camion loolu laa bëgg nag contrôle strict boobu nañ koy def ci géew bi ba norme bi nga xam ne laaj na ko euh, mu def ko mu sawa waaw jokkal bi itam ngañ war nañu wax ci moom tuuti bi mooy deuxième combat may seetaan c'est un lutteur te bu ñëwee day bëri mm-hmm. te gis nga gis toll ak taay mu am te dafay dem mm-hmm. xeex bi nag mënu ci lenn nag xamu ci lenn nag mais mi ngi jàng moytu mi ngi jàng moytu retrait xool jàngal nañ ko ne ko waa ji dafa gàtt dellu ginnaaw sori ko di ko cof mais waa nga xam ne dafa coriace gis nga ngi def crochet droit yu baax yu dal waa nooju na ko uh-huh. mais guddaayu loxo waa ji gis nga waaw wër na ko ndomb waa ji fexe bëri xam nga Lamine boo xoolee Moustapha taay ba Moussa ni ko ah. gàttaay <laughs> bi taay bi joué na ki nag moo tax moo gis nga xool xool paqueté na ko voilà <laughs> non njool xajul ci yeeli ndaama njool moo gis mu paqueté ndaam rek waa rek ngay dégg mu daanu voilà kon nag ndaama mën na jël njool nag donc moom njow ba njool bëri bëri ci voilà xale Thiès bi euh, di jeex jàmm euh, moom defe naa ne défensif bi mu bëri moo ko rey mooy borom téere yu bëri ah, moom gan lañu moo moo moo féetee euh, càmmoñ moo ngem ngem lu ñuul li gis nga xale bi xar na ko jël ko mais mburum tànk la rek. mburum tànk la waaye nag Thiès yàgg naa mburum tànk. waaye galgal baa yàgg nag nañ boo falaatee. waaw galgal bu yàggee rek. waaw waaw saa yi coono am. coono am galgal moom bu yàggee rek bu yàggee day teqal ñu ko. Mhm. galgal na galgal bu rëcc mu ñëw galgalaat galgal ba sax. gis nga ma ngay jekk-jekkal fii warul taxaw voilà gis nga euh, loxo ba loxo ba mu waroon défendre ba mu bëree troisième pied bi la téye a ci euh. a wax ne euh. mooy loxo ba mooy loxo ba mooy troisième pied parce moom la waroon teg moom moom la éliminé <laughs> bu dee ci lutte gréco dafay marqué cinq points suñuy jamono ñuy xool pour marquer le point de mhm. maximum donc boobu nag bu dee ci gréco-romaine ni mu ko yëkkatee dañuy yemale foofu foofu ko fa lay yem moom mooy moom mooy supériorité manifeste voilà mais aussi foog ñu xoolaat ne xale bii nga xamante ne moom lañ yenu dafa gënoon concentré wu ci bi indi ci làmb ji ba indi xamante ne nit ñi sax comprendre lan la donc war na dellusiwaat nag mm-hmm. xam ne làmb ji dafa am calcul am entraînement am bëri un jeune lutteur boo xamante bu fekkee mës nga bëri sax benn combat peut-être bi mhm. nga ñëw ci làmb ji war a bëri façon mystique bu nekk nga génne ko ba concentré woo ki mu bëri pare na ba taxaw di ko xaar mhm. moom mu nekk ci ay dem dikk dem dikk takk ay àlluwa takk mhm. ay gaal dafa yoo xamante sax mbëri ma sa gis mu ngi def ko dem bëri nag ñu daan ko jël bu gën a ci làmb ji ça veut dire war na delluwaat ginnaaw xam ne ah, mystique bi ci adversaire bi mystique am na nag dañ ko def ba bàyyi ko duñ koy weddi mais nag concentré li ngeen di bëree. concentré ci li ngay bëree euh, leçon du tigre la c'est important. waaye tamit dee leen étudier adversaire adversaire nañ ko étudier bu desee cinq minutes ba dix minutes ci doxinam. Mhm. ci réaction am xool ndax crispé na xool ndax combat bi dafa war a duré foog ngay étudier adversaire waaye topp bidon yi topp bidon yi ba arbitre leen nga doog a xool sa adversaire ci biir géew bi gisoon nu muy doxee xamoo xooloo tësën bi xooloo ndax dafa gaaw parce que mbër bu gaaw neex na xam. Mm-hmm. su doxee da nga koy xam. yooyu yëpp da nga koy def étude. xool mbër mi xool ndax am na rapidité. ndax réflexe am ci ni muy doxee. yooyu yëpp mm-hmm. même boo jàllante xoolal tubaabu joor euh, mànga ba. <laughs> bi ko bi ko mànga di njëkk daan. Mm-hmm. bi ñuy wër ba ñëw côté découverte. ma gis mànga xob tubaab rek tubaab da ko ko fekk. Ah, c'est provoqué ma ne ah, mànga ma ne nag mànga kon. tey bàyyi tubaab juk rek mu wàcc. évidemment combat ba ca wet gën a tëdd. tubaab képp ku mos a bëreeg moom. waaw naan la merloo ko. merloo ko voilà. ndax borom jom la borom fulla la du daw ko merloo rek. mu taxaw gis boppam. waaw da lay bëgg duma. bon loolu euh, dañ ko doon fàttali rek ndax euh, tamit léeg-léeg ñuy fàttali démb baax na. ay combat yoo xam ne xale yi fekk wuñ ko euh, c'est important grand combat bi gaaw na. 30 secondes benn cong. Hmm. booy xool Tyson 2 hmm. dafa ñëw dafa indaale li mu war a bëre. Mhm. dafa important combat bu jeexee rek ñi analyser war nañ xam ne kii dafa indaale am na mbër yu ñëw naan damay bëri. Mhm. rek pour bëri. Mhm. am ñu ñëw naan lii yaay def. pour daan. da koy tenté benn yoon réussir ko xool combat bi ay fraction de seconde la. kon mën nga mën nañ jàpp ne buntu buntu buntu buntu buntu bëre. soo ko gisee demal tëj ko mais demal tëj ko bien sûr kii boo xoolee aussi nga xam ne taajir taajir euh, bu ndaw bi taajir numéro deux mhm. la dafa ñëw rek sànni ko bañ def la def semblant waa ko dërëj mhm. daf ko daf ko ba gis nga mhm. téye ba ca kaw ko ci suuf ko ci suuf éliminer ko ca loos ba <laughs> loos ba moo ko daaneel la kii xam nga ko daal mais ma arrivé parce que cueillir à froid parce gabar yi waa ji taayi waa il était bien booy xool Tyson Tyson na deux mhm. physiquement boo ko xoolee pare na nga xool ko daaw bu mu bëree ci tournoi bi yokkute na mhm. parce que mbër noonu la di xàmmee mhm. boo ñëwee ren ñëw 75 kilos déwén booy ñëw wax ñu ko ñëw 180 kilos comme ñu gis léegi de mais ñëw ay quelques kilos de plus ñu ñu am ci yow yaakaar loolu mooy tax amateurs yi seen xel dal mais fa nga nekkoon daaw su fa desaatee rek mooy yow amoo benn progression mbër day progresser selon at yi ci topp ren 75 laa bi ma ñëwee naa yokk sa au moins. Mhm. quelques kilos de plus yoo xamante ne dina ma may. Mhm. ma mën a ga amateur yi mën a am ci man xel bu dal. jërëjëf Moustapha Guèye ci analyse yooyu euh, dellusiwaat nag euh, ci programme bi dimanche samedi bi di ñëw ca yoof lay am euh, Cobra bu Pikine Mbolo mooy dajeek mobile bu Grand Yoff Mbolo Birame Njëngu production moo koy amal ci stade Yoff bi mais dimanche. ak Kandji production di combat yoo xam ne tamit euh, dimanche 30 octobre ci stadium Iba Mar Diop première édition drapeau Bara Gaye secrétaire général euh, bu UJTL euh, moom lañ koy def Ousa Sow numéro Ousa Sow bu Fass mooy daje le grand Ousa Sow léegi ndax nee naa leen Ousa xëy na rek ni carrière demee mais moo topp ci Moussa Wagué ah <laughs> moo jiitu ñoom Gris Bordeaux ci làmb ji ak Khadim Sarr ñu gën koo xam ci Boy Sarr bu Pikine Falaye Balde Euh, ñoom ñooy bëri diggante wulli bu parcelle mbooloo ak feu rouge bu école de bos ko Sow euh, Jules Balde junior bu euh, Pikine Falay Balde mooy daje ak Iran bu Thiaroye-sur-Mer kooku nag ah sunu pap ménager yi ñàkk bàyyi yére bu yàggul ci lañ ko bëgg fàttaliku ci combat boobu xam na alaaji Moussa Diagne na ci wax léegi Bazoka bu Ngoy moo bu école Fay Faysal mooy daje ak king bu école de lutte bu tubaabu joor gris junior parcelle mboolo mooy daje ak tonnerre numéro 2 ci waya Moussa Diouf lañ ci am ak kanji production loolu dimanche euh, kon euh, mbokk téléspectateurs yi comme niñ leen ko waxee woon euh, plateau bi dañ ci am ay invités de marque commencé ko ci doyen Moussa Dia doyen ginnaaw bu ñu la dalalee ba pare bëgg ñëw ki yow ci li nga xam ne mooy rôle manager diggante CNG ak mbër yi dafa am interlocuteur bu nekk ci diggante bi ñu koy wax nga xam ne mbër amul droit jëli xaalis CNG CNG du jox mbër xaalis convocation sax CNG du ko jukul directement ci mbër yéen la koy jox ngeen di interlocuteur ay baat jib ci diggante mm, association mbër en activité ak jëm ci CNG bi coow am ci ginnaaw conférence de presse bu président Alioune ci kanam fi daañ ci ñëw yéen fan ngeen war a taxawee actuellement ak luy seen rôle. <coughs> asalaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi ko ci nekk si trop sa sant euh, di wax ak mbooloo mi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di ñu seetaan làmb ji dafa changé bu mag a mag a mag dafa jëlee fu sore ñu dox ba ñëw ba fii bu njëkk fédération moo amoon léegi fédération amatul ñu indi CNG teg li tax ñu li tax ñu indi CNG mooy fédération li mu daan doxalee peut-être c'était pas tellement ci biir ñi nga xam ne ñoom loolu mooy CNG CNG mooy borom réew ñi nga xam ne ñoo yore état sénégalais bi ñoo naan ñoo ñun ñii ki nga xam ne moom teg dañuy xool ñi nga xam ne doy nañ leen te mën nañ doxal lii buñ leen ko denkee ba pare nag état bi indi koo xam ne moo ko fay toogal di ko xoolal di ko déglul di ko contrôle di ko gisal di ko rendre compte ma jox leen exemple bu leer Ibrahima Sarr biñ taxawalee fédération moo fi nekk bi fédération bi daanu ba daaw jéeg moom moo nekkoon représentant directeur administratif bu CNG maanaam moo toogaloon état sénégalais ci biir CNG. Mm-hmm. kon nag CNG li nga xam ne ñoom la ñuy def am na koo xam ne moo fa tegal buur di ko war rend compte régulièrement diggante CNG ak fédération sama doomu mbër laay waxal parce que Pape Moussa yi ñëpp seen papa la. Mm-hmm. bugguma mu am loo xam ne dañ ko jaawale. ndax boo naroon taxawal fédération léegi maa ngi dëkk Fass mais am na ñaari écurie Ndakaaru ñaa am na ñaari écurie nga indi yeneen écurie Grand Dakar dem Pikine Guédiawaye ak yooyu ba pare te balaa loolu danga war a taxaw li ñuy wax district ñoo xam ne waa fii la ba pare nga indi département bi muy district ba pare nga dem ci région bi mhm. taxawal ligue bu loolu passé nga dem ci région yi am ci Sénégal yëpp ku ci nekk indi délégation am ñooñu nag jaxasoo defar fédération ñooñu nag bu ñu amee doole bi ñu am CNG amu ko ndax CNG dañ ko désigné ay nit la ñu ba pare boole ñeneen ñoo leen contrôlé ñooñu lu ñu def eh, dañu dañu ran kon pas l'État mais CNG lépp loo xam ne def na ko bu at mi jeexee dañuy binda leetar këyit ne nangami xaalis dugg na fi def nañu lii def nañu lii def nañu lii jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fa indi ndax am na kenn koo xam ne ministère moo ko fa nommé mu nekk fa di xool li nga xam ne moo am te bu ñu réunion day fekkee. mooy directeur administratif. mooy directeur administratif ni nga ko waxee. ba pare mu am loo xam ne damay profité ci leer pour leeral ko sama doomu mbër yi parce que mbër yi Pape Moussa la ñu may Pape Moussa Pape wax loo xam ne xëy na ñu bari lu ñu ko la ñu koy rusa wax CMG. ku mel ni Alioune Sarr ku mel ni docteur Raymond ku mel ni Ardo ay kilifa lañ yoo xam ne ñëpp a leen soxla sur le plan international muy Ardo muy Raymond dañ leen soxla te ils sont ils sont ils sont membres des bureaux yoo xam ne ci international lañ nekk te bala ngay xam ne ñi li def dañ ko bëgg a te yàlla tax man dama am autorisation boo xam ne ak quelques managers dañuy toog seen gannaaw commission médicale mais Raymond bu ñuy bëri naan kii mu ngi ko kon nag ñu ut si wuñ fa dara mais seen xool la ñu am ak seen xam-xam indi ko pour defar làmb ji ak ñeneen ñoo xam ne ngeen baal ma bañ tudd seen tur mhm. ba pare mu am loo xam ne CNG lu def ko gàddu te neen ñi gàdduwuñ ko ndax Sénégal dafa amoon lu ñuy wax fond dette benn kees goo xam ne état sénégalais moo ko jël def fa xaalisam pour koo xam ne mënoo dem muy fédération muy CNG ñu dimbale la kees googu léegi amatul ba pare nag mu am loo xam ne yeneen CNG yi ak yeneen fédération amuñu ko mooy CNG lutte dafa yore ñetti façon kuréelu bëre muy bëre simple bëre dóor ak lutte olympique te yooyu yëpp benn rek moo ci indi xaalis muy bëre dóor ñeneen ñi nag lu ñu dunde lii nga xam ne moom lañuy ñuy jëlee fële indi ko fii ci biir kees gi ci la ñuy suuxate lale li ñuy jëlee li ñuy jëlee. ci làmb dóor bi xaalis bi ñu fooy jëlee bu ñëwee li ñuy pénaliser nit ñi mbër yi li nga xam ne moom lañu teggil ak promoteur li nga xam ne moom lañu joxe ci loolu la ñuy jël pour doxal yi nga xam ne moom la ñu doxal ci biir seen doxal ko ba pare entretenir ci en même temps lutte olympique parce que lutte olympique bu amul euh, compétition internationale l'état ne fait absolument rien kon CNG di nga jékki-jékki mu convoqué di nga jékki-jékki ñu ne fédération mu ngi convoqué entraîneur mu ngi ko koy arbitre kan moo leen jox xaalis ak ko. léegi léegi léegi léegi ma ñëw foofu xale yi tamit am nañu pour bu ñu leen tegee dara ñu wax mais yéen fan ngeen nekkoon ba ñu teggi leen jëm seen ba te yéen ay interlocuteurs yi. maa ngi lay wax lu leer man su ma ñëwee fii di wax dama am accordu président de managers muy Bassirou Babo mm-hmm. kon su ñëwee fii di wax. damay wax li nga xam ne moom moo gën a neex dégg tey dégg bu ñu vivre nga mun teg sa loxo bu fekkoon ne xale yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii actuellement di wax ci seen association boobu laaj nañu ku mel ni man xëy na du demee noonu na demee neneen lépp na dugg ci ordre ndax wóor na ma wóor yàlla ne yàlla moo yàlla moo ko defee nii ah boo wootee da ngay dem défilé ji ñu xool défilé ba gis ñu fa màng ba nekk nii gis ñu sax a Gueye gis ñu fa roi des arènes gis ñu fa mot ndaw Tyson marché boobu lu muy niroon. non ñëwaguñ ci marché bi. maa ngi ñëw. yéen fan ngeen nekkoon yéen ñi nga xam ne yéenay interlocuteurs yi. waaw xanaa seen digganteek mbër yi amul kuréel boo xam ne bii ci biir. waaw ménager yi. waaw lu ñu bëgg a def. Mhm. parce que yéen a leen di jëlee la xaalis. waaw bu ñu leen di convoqué ci yéen la ñuy jaar. waaw ñoom amuñu benn accès yoon mayu leen. waaw pour ñu jóge fa di dem seen jënd di lijjanti dara. moom laa yéenay interlocuteurs yi. bon fii ñu toll tey la ñuy doog a dégg sa baat ci ndigalu euh, président Babou. Mm-hmm. Euh, boo boog léegi coow li tem ba tàng ba dar. Mm-hmm. ban ngeen ci defa ko xam nga man bi nga xamee ne ñu ngi monter affaire bi. Mm-hmm. ci stade l'amitié. man demoon na. mais li ma fa gisoon am na lu bari lu nga xam ne waroon naa ko wax bëggoon naa sax wax. mais jotuma wax après ma ñibbi. pourquoi parce que biñ daata biñ fa daata jógee am na sax ñu ñu jàppante te dara demagul. te loo gis xaalis moo koy faral di indi kon nag comme ñoom ñu ngi soog ñëw nii maître mm-hmm. woo leen dig leen nañ def ndànk-ndànk non ñëwaguñ ci xaalis maa nga ñëw foofu euh, euh, Père Moussa ñëwaguma ci xaalisu maître Wade mutuelle bi ñëwaguma ci dama de en tant que manager interlocuteur u mbër yi yéen ban démarche ngeen def ci diggante CNG bi ak lutteur en activité yi pour jàmmaam ak foo leen ci toll ak loo leen ci waxagum. xam nga loolu moo tax ma volontaire fi par le biais du président bureau mm-hmm. ñëw fii pour leeral mm-hmm. pourquoi parce que mbër yi bu ñuy wax duñ tàggu mm-hmm. duñ tàggu manager bi maa wax yi manager bi daal mooy ki nga xam ne nekk na fi te loolu warul woon nekk parce que moo da ngay koy bindal këyit ne kii moom laa désigné pour mu nekk ca foofu ca fédération ba ca ca ca CNG ba pour lépp loo xam ne dañ ma koy jox ñu teg ko ci loxoom. ndax hmm. bu ëllëgee boo defee loo xam ne warul woon def booy remboursé yaa ngi manager bi yàlla di remboursé parce que moom moo signé yéen ñaar yàlla na signé. Hmm. kon nag loolu bu fekkoon ne gën nañ jege ñi nga xam ne ñoo ñooy manager yi. Hmm. dañu xaw indépendant. te loolu baaxul. loo xam ne yaa ngi su ko ñëw doo wax man kay rek. xam naa ko lu ëpp 30 ans il était tout petit mhm. mais keroog laay su ko gis couleuru bëtam parce que buy wax yow day sëgg mhm. te loolu njiit warul def loolu mhm. man seen papa moo tax ma leen di wax lii li ma leen wax loo bëgg a def leen ndànk bin bin bu soobee yàlla ak yonte ba CNG doo leen am problème ak ñooñu parce que ñi nga xam ne ñoo fa nekk buñ leen buñ leen yokkul duñ leen wàññi te moi je suis bien placé pour le dire parce que dama koy vivre kon gis nga saafara ci mbir mi xam ah, nga ne gis naa ci saafara saafara bi mooy ki nga xam ne moom la fi yàlla teg actuellement muy soog a ñëw nii muy Abdoulaye Diop mm-hmm. naa ne yàgg na ci mbir mi te booy town la mm-hmm. ci Ndakaaru Njaay lu la la la defee jeunesse am yëpp mm-hmm. am na jàmm ñu bare war na ci mën def li nga xam ne war na ko pour affaire bi mën a changer completement ñëpp noppi pourquoi parce que Aliou man dama doon wax sama xel day kii bés bu ne woon dafay dem naan day bàyyi man Moussa Diak sama béykat yi. Mhm. ak sama engin dama naan mbër yëpp nañ dem kër Alioune Sarr bu du liggéey day delluwaat fédération CNG. Mhm. pourquoi parce que mook ñi mu àndal li ñu attan kenn attane ko. Mhm. te man xam naa ne dañ nekk ci réew moo xam ne nit ñi muy fédération yi ëpp. da ngay nekk fi doo technicien musoo football musoo def dara ba pare. bëgg li nga xam ne footballeur bi pratiquement bi daf koy am technicien bi di ko am yow mi nga xam ne jànguloo mënuloo xamoo dara ñu war a am ko te loolu mooy bëgg a yàq réew euh, léegi léegi ci beneen kàddu bi la nga xam ne ñoom ñu ngi koy ñaxtu yéen ménager yi noonu lañ ko jàngate dama ne li ñuy ñaxtu même ñaxtu bi nga xam ne dañ koy ñaxtu waaw maanaam butéel yeeg dagg beeg détail yooyu waaw loolu yëpp soo gisee dafa am lu nga xam ne am na parce que ci seen biir wax sax dañuy wax loo xam ne dañuy juum parce que le secrétaire général dafa ne le roi et le le le lutteur de l'arène loolu amul mbër mi du lu ko neex buur lu ko neex lay def fi mu jëm te mbër mi dañ ko ne bu njëkk ba daan ñëw bëre mais léegi dañ ko ne bala ngay bëre contrat la boo defee lii nañ la teg lii boo defee lii nañ la teg lii boo defee lii nañ teg lii ba pare nga nangu ñëw signé ñu ne la sa xaalis nag yow ki nga xam ne promoteur bi nga xam ne yaay tëgg làmb ji da nga fiy indi xaalis bi nga xam ne mu ngi ko desal ñetti fan bu mu daan bëre buñ ko deseel dara. de ce fait yow boo ñëw ménage bi ngay signé. li muy tere yëpp dañ ko ci wax. Mm-hmm. nga signé ko di doon un exemple rek. Mm-hmm. c' nag am na ñoo xam ne règlement bi lañ dul comprendre. ñam ci ku mel ni guy gi sama doom. waaw moom tubaabu séeréer la dégg <coughs> déggul tubaabu tukulóor. tukulóor bi. <coughs> je m'expliquer mm-hmm. parce que réglement bi dafa ne arbitre bi bu sifflé. ci la bi commencé. bu mm-hmm. sifflé waat ak lépp lu mun am rek dañuy arrêté. kon yow te bala muy sifflé dafa am fu muy jaar ak yow dafay wax ñaari juge yi kii pare nga mu ne waaw mu ne kële pare nga nga ne waaw mu ne sa adversaire pare nga mu ne waaw ñu yow pare nga ne waaw mu sifflé nga daw génn te yoon dafa ne contrat bi nga signé dañ ne boo defee loo xam ne warul def. te daw génn géew bi bokk na ci bu at bi xasee sifflé la nga fa dese woon dinañ ko def ñeenti cër jël benn cër bi. mi ngi ci kayit yi. kon may wax ne moom xëy na tubaabu séeréer la dégg lool la. ma nga ci kayit yi mu nga ci kayit yi. kon léegi ma wax ko ne guy gi moom gannaaw bés ni ki tey xam naa daf may il ataaya kër ga. Mhm. bu arbitre bi laajee sa adversaire ndax pare na mu ne waaw yow ñu ne la pare nga ne déedéet ba pare nga jàpp. jat boobu nga jat sax dañ la dagal parce que ñu ne bu bu temps bi jeexee bu temps bi jotee. waaw ñu ngi booy teg dix mille francs la. Mhm. kon au ñu la tagal. Mhm. quatre cent mille wala cinq cent mille. par dagal xëy na boo jot du nekk mille voilà léegi léegi kooku contribution la ci guy gi bon exemple la pour jox ko yeneen mbër yi euh, ci question bu mujj bi euh, ci la ñuy ñëw Euh, contrat bi dëgg la mbër yu bëri comprendre nañ ko est-ce que ménager comprendre nañ contrat bi. ménager yi ñoo ma ko sax dàq ñoo ma ko gën am na ñoo xam ne jànguñu sax école mais ñoo ma dàq commenté affaire bi. est-ce que dinañ ko ñoom bu ñu ñëwee pour indi xaalis bi. waaw est-ce que dinañu toog insister lool ci règlement bi ak mbër mi. xas nga tamit euh, ñëw rek ñu jël këyit ga <laughs> teg fee compter xaalis bi. waaw bon est-ce que loolu tamit euh, yéen seen bureau bi. ñu ngi ciy bu baax a baax a baax. yaakaar laa ci am. Mhm. Mm. parce que mënu ko certifié. mënu mm. ma ko wax parce que am na ñu nga xam ne ñu ngi def ku mel ni guy gi. Mm. mu ngi def loolu. kon xëy na peut-être ni ñu ko waroon expliquer dafa àggul quoi. dafa àggul man mais ñi nga xam ne man Moussa man moo leen yore ak ñeneen. Mhm. dinañ leen wax ne lii la lii la boo defee sa xale lii la de da ñëw taxaw ci boor ci buntu làmb ji lii la lii la lii la boo defee lii la lii boo defee lii lii la mm-hmm. Mm-hmm. kon nag damay profité en même temps ci occasion pour ne pas monopoliser la parole mm-hmm. mu am loo xam ne dama koy wax te yàlla tax muy le cas du petit Ama balde Ama Baldé gis nga le regroupement des lutteurs la wax nañu ak menaçant l'air menaçant mais gis ngeen le petit Ama balde moom dafa dem ci journaux yi wax ne waxloowuma kenn ma tooñ maa ngi jégalu mhm. kon yéen waa CNG yaakaar naa ne dama leen ñaan yàlla tax ngeen baal ko jërëjëf Moussa président doyen Moussa Dia euh, ci leeral yooyu ñu indi ci wàllu mbër yi digganteeg CNG euh, maa ngi toog ak euh, Cheikh Anta Seck moom nekk ci association boobu nga xam ne moo sos ci làmb ren association bi lu ko tax a jóg kañ ngeen ko sos ak lan ngeen bëgg liggéey ci làmb waaw jërëjëf encore Ngagne association bi juste ma leeral ci benn mbir rek. Mhm. mooy li Moustapha Guèye sànq doon wax ci bunt bi. nee na ma yéen non non man li may laaj ngay wax li Moustapha Guèye ci bunt bi bunt ba la ko wax. il faut ma leeral ko parce que ci association non wax ma rek laaj ma tontu ma li Moustapha loolu yéen ko wax ci bunt ba. loolu ci sa biir wax nag mën nga ko ci dugal mais tontu moo pare. incha allah kon Tafa daa tontu ci loolu. waaw waaw bala mu laajaat ko rek. ñëpp dégg ko waaw dañuy dañuy ñëw stade. Mhm. di jànkonteeg ay problème mhm. parfois dañ lay jox badge mm-hmm. nga ñëw war a dugg mm-hmm. am kuñ teg ki bunt bi mun la mënoo fa jaar nga ne ko pourtant de badge bii ñu ma jox dañu ma di nga àgg fii mun la man dañ ma jox instruction mënoo romb fii biir stade ci biir stade bi bu ñu yéegaatee ci kaw toog ku mm-hmm. nekk di ko naqarlu ñu ñun dañoo bëgg wut association bu nga xam ne dina man problème yi nga xam ne moom la ñu am ci làmb ji moom mooy ciy défendre ñu toog foofu waxtaane ko benn yoon ñaari yoon saa bu ñu dikkee ñu ne gars yi daal farluwu leen lan moo tax bu ñu waxee association ba benn bis roqee caam xëy daal ni xaaral ñii dañoo yeex génne bic ak feuille ku nekk mun la bindal sa tur sa numéro téléphone ak sa email ndax ñu def les premiers pas mhm. ñu jóge si roqee caam ñëwaat daan ne comme def na loolu ba pare te kenn ñëwul pourquoi pas ñu mettre sur benn comité de pilotage mhm. boo xam ni buñ ko defee ñooñu ñoom ñooy réfléchir ci fondement wu association bi lan moo ko tax a jóg association bi nan lay doxee lan lay wax lan moo ko yitteel ñu ni kon baax na Abou Ndour ñëw bu sunu làmb man ma ñëw la tribune waa Leewtoo ñëw ku nekk ñëw mhm. ñun ñëpp ñu toog xalaat réfléchir ndoo daal lii lañ bëgg ci association bi lii lañ bëgg ci làmb ñun en tant que journaliste ba ñu jëlee loolu ba tënk ko ci benn kayit nag la ñu woote assemblée générale daal ni dañuy fal bureau bi. Mhm. assemblée générale bi nag techniciens yi nekk ci làmb jeeg journaliste yëpp trois quarts yi yëg nañ ko pour une première on reconnaît que mënta parfait mais au moins trois quarts ñëpp ñi nga xam ne ay journalistes yi ak ay techniciens yi yëngu ci làmb ji envoyé nañ leen mail ñu ñu woo leen téléphone ñu ñu wax leen ko bouche à oreille. léegi daal taxaw na. association bi taxaw na ñu dem daje le soleil ñëpp toog. ci lañ waxtaan ñu xool ñan ñoo bëgg a nekk candidat ci poste bu nekk. Mhm. ci loolu la ñu fale Ibakan mu nekk suñu président ku nekk xam ko ci làmb aussi Roqay Thiam nekk suñu trésorière mhm. Boubacar Niang bu euh, Walf Sport nekk suñu chargé de la communication mhm. Moustapha Niang bu Manoro FM ngir yor suñu secrétariat général man ma nekk euh, porte parole ak chargé de la communication. Euh, waaw. association bi juddu. ñu xëyaat. doxaat wax ko ñi nga xam ne waxoon nañ leen ko ni leen kat bëgg nañ association boo xam ni day am journaliste am ay technicien de la lutte ñoo xam ni ñoom ñooy défendre journalistes yi ñoom ñooy participer au développement de la lutte. voilà euh, Moustapha def naa question mooy deuxième bi lan mooy technicien yi. <laughs> waaw loolu def naa loolu loolu doon laaj. waaw. <laughs> technicien bi mooy lan. du Tafa Gueye dong moo ko laaj. ndax man mii dox naa dajeeg mbër mu ne ma yow. man ma xamee ci làmb sax yàggul. nga xëy fi bëgg a woowee sa bopp technicien. luy technicien ñan la ko da koy jaawale. ñooñu ñan la. jattu technicien la. jattu ban. jattu mi euh, caméraman. waaw caméra gën sax laay wax. ci la bokk. photographe. waaw bu nekk ci làmb ji. ci la bokk technicien nga. Mhm. ñun ba ñuy wax technicien ñooñu ñoo taxoon ñuy wax. Mhm. moom bu yoree caméra am parfois dina ñëw am foo xam ni pëcc xóot dina fa bëri ba mën na faa daanu wala mu yàqule fa mhm. moo tax ñu ne ko kaay ñu ànd ci association bi mhm. mën a liggéey pour yow ngay am visibilité li nga xam ne moom nga soxla ci làmb ji nga mën koo def mën a liggéey sa liggéey mhm. sans problème ba ñuy wax technicien ñooñu ñoo tax photographie moom mooy technicien photographie audiovisuel ak caméraman waaw association bi gën nañu ko leeralal naka la tudd association de quoi et quoi et quoi. encore une des journalistes et des techniciens de la lutte. Hmm. de la lutte de la boobu nag la ñuy bëgg a. et par technicien mu la est ce que vous de quoi de de la lutte. Euh, oui vous avez déjà lutté bëri ngeen. <laughs> wala bëreegu leen wala xam ngeen luy kott xam ngeen luy caxabal. waaw xam ngeen tout astuce am. waaw yëpp ñu bëri ñu bëri biñ ko déggee. Mhm. loolu la ñu yaakaaroon. mais leeral na ko mooy ñi yor xarala yi. photographe euh, ku mel ni jatu yor caméra am wala saway noonu ñooñu lañ ci boole. waaye dama liir ne communicateur traditionnel yi. Mhm. bokkuñu ci. lu tax boolewu leen ci communicateur traditionnel yi. dañoo ay technicien de la lutte. ay technicien la lañ. waaw lu tax boolewu leen ci. mais ci ban côté. Hmm? xam nga déjà. ñoom am nañ seen association. kenn exclurul leen sauf soxla seen expertise. man mi bokkul foofu nag. foo leen ma dugal. déggoo li ma la wax. waaw ñoom. waaw non man non man mi bokkul ci communicateur traditionnel <laughs> xam nga man maay seen. Mm-hmm. Euh, tampon. <laughs> waaw man foo mu dugal foo leen may dugal man. da ngeen may dugal ci presse bi da ngeen may <laughs> dugal ci parce que ñoom dañu ne communicateur traditionnel yi bokkuñu ci. sauf parce que lire naa benn article. Mm-hmm. moom loolu doon naa leen ci xaar quand même. Mm-hmm. waaw. léegi. waaw. dañ c'est traditionnel. kon nag traditionnel na nga ci mun bañ a bëgg ci li nga xam ne pour ñoom la. xam nga appellation association bi. Mhm. ñu ne association des journalistes et des techniciens de la lutte. waaw dafa ëmb CNG. Mhm. ëmb Ngagne Diagne ëmb Moustapha Gueye ëmb ñëpp. <laughs> waaw. moom mënta muusa ko mucc wax ba génn ci. kan la yow ngañ jaañ mii. ah mais attends man man xam nga. te eh? boolewu leen ma ci. li li <laughs> li waral ñu ne ngañ jaañ sax mu ngi ci. ma rappelé la tey jii ngañ jaañ yaa ñu recevoir tey jii. ma rappelé la benn affaire. Mhm. kañ laa leen yàgg wax ne def leen association. 2004 laa leen ko waxoon. Mhm. ne leen dajaloo leen. ngeen def association. Mhm. ñu dugal ci sunu loxo. parce que làmb ji day jëm foo xam ne. boo demul benn say. da ngay am problème. Ah, lutteurs yi ñoom Moustapha Guèye benn say la ñu def ñoom doyen Moussa Dia benn say la ñu def xam nañ ne làmb mbooloo koy doxal Aliou Sarr équipe la yor eh, eh, lutteur en activité yi eh, def nañu say attention moo 2004 laa leen ko waxoon bon ñuy traîner ñuy traîner ba vraiment yéen ma leen di féliciter parce que tamit bi ngeen ñëwee da ngeen ko accélérer mais ci biir loolu lan mooy seen objectif ñan ngeen war a dajeel ñan ngeen war a waxtaanal ba xam ne cette association bi dina indil njëriñ làmb merci encore une fois ngañ mm-hmm. ba ñu jógee di sos association bi naa la ay coono yu ñu doon jànkonteel mm-hmm. ci maanaam mën a def suñu liggéey waaw yooyu jàll na déjà tey jii waaw bu ma xëyee nekk ci làmb ji mm-hmm. am lu ma fa fekk du sama directeur de publication mooy ñëw ni ma kaay ma génne la ci sama mbokk yi nga xam ne man ak ñoom ñoo nekk di fa liggéeyandoo ñoom ñoo njëkk a taxaw. Mhm. juste ma raconté la benn euh, histoire buñ fa am. Mhm. xam nga journaliste fi ñuy toog ci kaw. Mhm. ñoom journaliste rek ñoo fa a toog. benn jour xaw par quelle alchimie la benn nit ku nga xam ne mën naa ne ko étranger la. dugg ci biir déjà toog fa après di tux ñun entre ñun. dañuy toog waxtaan waxtaani lépp boo bëggee tux da ngay wàcc ci biti nga tux parce am na ñoo xam ne bëgguñu ko règlement bi foofu loolu la mais ba mu fa toogee déjà ñu ngi naan ko fii journaliste yi war a toog dégg ko mhm. mu teg ci di tux mhm. Asi Gaye wérul jug ni ko grand yaag may xër kese mhm. mu jug dal ci kawam ok instant boobu noonu su fekkee journaliste yi nekk ñu foon mën a taxaw comme Asi Gaye tamit jigéen la bu boobaa leneen mën na cee ko sonal yooyu problème nañ bëgg mu jóg làmb ji maanaam ñu améliorer les conditions yi nga xam ne moom la journaliste yi di travailler au niveau de la lutte. ok en plus de cela am na beneen moom mooy ñun suñu biir ñuy waxante dëgg. Mhm. à ce que ñuy veiller au respect mhm. moom mooy lan chaque jour da ngay wax ak guy gi téléphone. Mhm. wala nga koy interviewer. Ah, mu wax mun la nang ma bindal li ma wax de. waaw bindal ma li ma wax. waaw wala bërki démb Elton. ñu jot ko mu naan man dinaa bàyyi làmb sax ndax journaliste li ñuy teg sama der bi. wala Gaston Mbengue toog nii wax ba ceeg daan la waaye sax est-ce que journaliste nga li ngay wax nii du jëfi journaliste. Mhm. juste nag ñu rappeler journaliste yi que ni ñun dafa am ay sart yoo xam ni moom lañ jàngee suñu métier. Mhm. te dañ koo war di fàttali ko fu ñu toll ci métier moomu ñuy def. di ngeen a daal lépp lu obstacle ngeen dem affronter ko ñoo ñu xam ne lii moo leen tax a jóg. ku ne xam seen rôle seen toggaay ci làmb ak ni ngeen war a toggee ci làmb dangeen bëgg daal ñëw affaire bi leer. Mhm. waaw mu am beneen mooy ñun làmb ji ay mbër ñoo ci nekk. Mhm. lii ma doon wax Tafa Gueye léegi nii ñun dañuy bind peut-être ñoom jotu dinañ wane image yi mais ñun ñi nga xam dañuy bind. Mhm. am ku mel ni ngañ jaañ ku toog ci plateau bi mën a décrypter daal ni kat kii jël bii lañ ko daan. daal ni xatar bi wala. benn technique boo xam ne am na ci làmb ji. Mhm. man mii soo ma laajee a ah, dama ma modestement laay wax. Ah sama njàng ak si mu tool yëpp. soo ma nee la mooy xatar bi mënuma koo wax. Mhm. je suis obligé su may bind sama article ma dem daan daf koo xatar bi. Mhm. le lutteur a procédé wala a utiliser la technique di xatar bi. xatar bi nañ leen toog ñun suñu biir. organiser ay séminaire woo ay techniciens yu mel ni ñoom Tafa Gueye ñoo xam dañuy mel ni ñoom alaaji Papa Dieng mhm. ñu mel ni ñoom ngañ ñi ñu ñëw daan nañu kat xaatar bi lii la mhm. wax ñu de technique bi yëpp ba pare mhm. suñu paree ñu woo ñu nga xam ni jàng nañu ku mel ni ay ñoom professeur Samb bu nekk université su ko jaree ñu woo sax ba Iba Der Thiam ñooñu seen xam-xam ci surtout wolof bi mën nañ ñu ni fii la origine kii bi jóge ñu xam technique bi bu boobaa bu ñuy bind ak li ñu bëggee jàllale làmb ji ba mu dépassé fii mu toll nii ñun ñu mën ko bind loolu mooy suñu contribution bi nga xam ne moom lañ bëgg indi parce que si dañ ni dañoo bëgg a jaay mhm. suñu sport national très bien bëggatuñu mu nekk national très bien mu nekk international Cheikh Anta vraiment merci euh, loolu boo leen ko defee lu bari dina dañ ci làmb ji ci werante euh, ndax làmb ñaar la loo fekke ak lu ñu la nettali kenn du ko inventé moo tax ñi bëgg inventé làmb toujours ñu am problème gis nga boo nekk journaliste bëgg ñëw inventé lamb toujours ñu mbamba la da ngay am problème làmba ñaar la rek day da koy fekke mbaa ñu nettali la ko histoire la <laughs> da koy fekke mbaa ñu nettali la ko loolu boo leen ci tënkoo comme ni nga waxee a ah, vraiment di ngeen dem bay bind loo xam ne ku ko liir à travers le monde ci net beeg tout dinañ xam ne lii ñuy wax ak lii ñuy def lu am solo la euh, kon di la gërëm di la sant xam naa ci kanam tudd naa daal sa président euh, kon dañuy dem rek euh, ci conférence de presse président Alioune Sarr bi nga xam ne defoon na ko ci siège CNG bi ñu déglu ko dellu soit ci bindkat yi koo xam ne dafa am fuñ ko tegoon muy Cheikh Yérim Seck ñu xamoon ko Jeune Afrique doon ko gis ci média bi yaakaaroon ne e, nit ku am pas-pas la nit ku dëggu la mais depuis àjjuma e, ñun waa comité de fañ ko tegoon wàcc nañ ko fa te lii ma leen di wax dama ko ko wax ci suba parce que yàlla def na ñu jokkoo ci suba mu won ñu it bañ jokkoo que ay nit ñu bokk ci milieu làmb bi ñoo ko juumloo ma won ko nag de ko yaakaaroon naa ne xereñam paase na ñu ne la wuub nga ne sàcc baa donc mu am kayit bu mu bind kayit gi nag ca bopp ba ba ca génn ga dara taxawu ci millions yi muy wax ne fédération internationale daf ñu koy jox amul dara lu ciy dëgg fédération internationale liñ séq ñoom mooy centre fila bu Thiès weer bu dee waa SNEPS dañuy def seen facture médecin bi def facture am euh, bi def facture am master bi def facture am coordinateur ñu am ak bind ñu yónnee ko ba Suisse pour vous dire xaalis bi sax nekkul Sénégal suñ doy comme ni niñ koy wax su fekkoon ne xaalis ba dañoo intéressé kon dañuy wax ne duñ jël sant bi te duñ jël xaalis bi ñu yónnee ñu xaalis ba na mu toll ñu séddalewaat ko ñi ko moom chèque yaa ngi fi lu leer nañ yi xale mbër ya fa nekk. pour bañ a laal seen xaalis ku nekk dafa am carte bancaire su weer dee da ngay dem ci banque bi dugal jot sa xaalis du jaar sax ci suñu loxo Conféges mu ngi fii rue Parcelles ne nañ at bu jot ñu jox ñu téeméeri million ak juróom fukk ay kàcc neen la sunu làmb ji nag li genn ñenn ñi bëgg wuub sàccee ñu ne fëx daw ñu foog ne ñun ay sàcc lañ fañ ñu yare du ñu daw fañ ñu yare comme dit notre euh, nation on nous tue mais on ne nous déshonore pas eh, amuñ maam yu daw dañ leen rey ci xare wala ñu def li ñu war a def mais xupp taxul ñu jóge fi ñu jóge ñi yaakaar nag ne su wax ji taree ci biir média yi ñu daw nañu yokk wax ji du tax ñu jóge fi ñu jóge tant que ministère des mu ñuy wóolu tant que ministère des sports mu ngi wax ak ñun loo xam ne dëppoon na ak ñun niñ gisee suñ doxalin ak ci lu ñu mën a dénk na leen wóor ne compagnonnage boobu dina continuer bés boo parti benn nag ci ñun ñaar gisatul boppam ci biir na leen wóor ne soxlawuñ 48 heures pour joxe leng yi dellu ca lañ nekkoon continuer ca lañ nekkoon. olof yi dañuy wax ne alxuraan xajul ci boppi xaj rawatina kuti ñu xëy ne la yowa rek nga foog ne yaa moom réew mi njuumte mënul paase foofu. nomination dafa war a tiital nit nit ku normal suñ la dénkee dara da nga war a tiit mais rek commencé karawaatu média yi ñëw ngay wax lu la neex dama ne na xale yi dellu jàngiwaat te nag ci réew mi lañ dëkk de am nay maam yoo xam ne suñ yeew woon tey am na ñoo xam ne dañuy yeew ña wax wax ja duma leen duma yu métti balaa ñuy seet leneen lu war a def nañu góor góorlu jéem a jub ci réew mi lañ dëkk fi lañ màggee te yàlla mayoon fi luñ doonoon démb te yàlla boole ñu ci ba tey nañ def attention wax ju ñaaw am na fu mu dëkk buñ waxloo nit ñi buñ waxloo nit ñi ñiy séddoo xaalis bi xam nañ leen ci làmb ji foofu laa yem nag suñ bëggee ma continuer ma continuer xam ne ñi ñuy jox xaalis balaa ñuy yegg fañ ko waroon a yóbbu séddoo ko xam nañ leen foofu laa yemal euh, jërëjëf euh, <laughs> mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu dégloo euh, président Alioune Sarr ci intervention boobu def na ko jàkkaarloog presse bi je pense que liñ ci mën a jàpp mooy bu njëkk bi ci li nga xam ne mooy article bi nga xam ne. sunu confrère Cheikh Yérim Seck def na ko nee waxtaan nañu gis nañu nangam ci affaire xaalis la woon gis naa ne tamit làmb ji boobu léegi làmb coow la. pourtant boobu ak léegi ñi ngi coowandoo militaire en activité yi ñi ngi coow ak ñoom euh, mais bi article boobu génnee def naa ci la def conférence de presse euh, peut-être ci la sër xalaale li mu war a wax ak li mu li muy dégg ci làmb ba yow euh, tey da ngeen fi ñëw ci li nga xam ne mooy association bi ngeen créé nga nekk président bi d'abord waaye tamit ma soxla la ci li nga xam ne mooy xew-xewu làmb ndax yàgg nga ci bind depuis lors yaa ngi ci bëgg a yàgg la léegi nekk journal suñu làmb article bu ne bind nga ko ci làmb euh, ci ginnaaw association boobu li nga ciy sërxal euh, ñu ñëw ci conférence de presse bi ak jàngat bi. waaw tout d'abord damay nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. di nuyu téléspectateur TFM yi nga xam ne tey à travers le monde ñu ngi seetaan émission bi nga xam ne roofoo la mi nga xam ne ñëpp ko bëgg. di saluer sama père muy am mhm. Moussa Dia di saluer le le le tigre de Fass. Mhm. l'ancien tigre de Fass. donc mooy wax ne tey bés bu rëy la si ñun parce que tey suñu association bi AJTL tey mooy suñu première sortie mm-hmm. ñu roofoo defoo ko defee ko fi mm-hmm. te yaakaar naa li fi Seex Anta wax yëpp mm-hmm. ku mu doyul woon tey war na la doy peut-être li may ajouté rek mooy si wàllu ANPS waaw ñoom ñun waa ANPS ñoom ñooy ñoom ñooy suñu njiit ñooy suñu mhm. lépp ñoo ngi ci kaw ñoo coiffé ci kaw ñun ñoo ngi seen ginnaaw mhm. lu ñu wax loolu la lu ñu def loolu pay mais ñoo ngi seen ginnaaw mhm. ñun ñoo ngi bootu ci ginnaaw CNG ñu ngi bootu ci ñëpp donc ñun mënuñu dem sans ñooñu li may gën a ajouté waat mooy si par rapport a la sortie de Alioune Sarr mu nekkoon sorti boo xam ne tey Sénégal bi yëpp ko doon xaar mais je pense que dafa yéex pourquoi mën ne dafa yéex c'est pas la première fois nit ñi di dénoncer gestion Euh, CNG. Mhm. donc bu ñu demee tey ba suñu benn confrère def benn article boo xam ne mun naa ne salé article boo xam ne dafa mettre la feu mhm. dafa laal góom boo xam ne kenn ñemewu ko woon laal mhm. ñu génn man je pense que loolu dafa yéex CNG lu ñu leen di reprocher le plus souvent du temps mooy manque de communication bi dañ leen koy euh, reprocher bien que ils ont fait un grand boulot ñoom leen loolu moom kenn du ko ñëwee tey làmb ji bu avancé yenn interdit yi am lamb commencé di commencé 17 heures di jeex 19 heures mhm. yàlla ak ñoom a tax mhm. mais manque de communication ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci mbedd bi nekk si rue bi di déglu nit ñi dañuy gis ne communication CNG bi dafa xaw a manqué dafa xaw a manqué trop ba nga xam ne nit ñi jooyoon nañ ko mhm. beneen bi nit ñi di jooy ensuite mooy foo dem tey dañuy ne xaalisu làmb fan la jëm mais CNG dafa nekk structure boo xam ne dañ ko fi teg ministère des sports moo ko fi teg nee nañ ñoom du ñu rendre compte kenn ku dul ministère des sports mm-hmm. te je pense que loolu c' est tout à fait normal ki leen yebal mais en d' autres tamit mën naa gis ne bien que ministère des sports moo leen ne ñoom la ñu war a rendre compte mm-hmm. mais pour seen honneur pour ñu rafetal seen dar il est ñoom tamit ñu toog di wax nit ñi xaalis bi fii la jëm fii la jëm fii la jëm fii la dugg mm. je pense que loolu moom moo gën a naqari sénégalais yi est-ce que du du boobu ba léegi ñu ngi ciy discuter ak président Alioune Sarr fu xaalis bi jëm mm-hmm. mu ne leen kee ma yebal mm-hmm. moo ko war a leeral mm-hmm. kooku ko yebal ñi fi jaar est-ce que du ñoom ñoo xamul woon seen seen seen li ñu dénk CNG bi ba waxuñu ba Abdoulaye Watar ñëw ne bu ko jaree dinaa ko bu ko CNG deful buñ ma ko joxee ma def ko waaw loolu yëpp moo ngi si parce que ministère des sports tamit je pense que euh, loolu bilan boobu nit ñi dañ ko soxla journaliste dañ ko soxla mbër yi di bëri ñi nga xam ne ñoom ñoo tax lamb bi àgg fii parce que sans les làmb lamb du àgg fii mhm. lutteurs yi moo tax ñoom looy seen métier mhm. donc ñoom bëgg nañu xam chaque fin de saison mhm. lii ak lii moo am lii ak lii moo am communication boobu daal soxla nañ ko CNG parce que démb li Alioune Sarr def loolu waroon na ko def avant Cheikh Yérim Seck di def sortie parce que Cheikh Yérim bu demee bay wax ne mm. trente promoteurs moo am trente promoteurs ñoom ñoo nekkoon ci saison 2010 2011 waaw loolu ñun ñi journaliste xam nañ ne loolu amul parce que promoteurs yi daaw ils étaient 19 promoteurs waaw démb CNG révélé na ko mm-hmm. moom mu dem ci liste nombre de licence yi mm-hmm. ne licence bi franc ñu ngi koy jaay à 10 000 francs ah donc loolu tamit licence ban licence euh, euh, pour pour nekk un lutteur. pour mbëri pour mbëri ñu ne 10 000 francs te renouvellement licence c'est 6 000 francs. 6 000 beneen autre chose mu ne manager il est il a dit que les managers étaient sont au nombre de 200. ah pour la saison 2010 2011. looloo nekk ci looloo nekk ci article bi te managers yi au nombre de 47 la. donc ma je pense que ñun ñi nga xam ne ñoo doon suivre sa lamb ji ñun xam nañu ñaata manager moo am. ñaata promoteur moo am xam nañu licence nan nga koy mm-hmm. renouveler mm-hmm. xam nañu règlement bi mm-hmm. donc CNG avant Cheikh Yérim Seck di génn di def sorti ñoom dañu waroon def sorti chaque année journée de réflexion yi dara dàq ko woon dañu doon toog échanger ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb ji mhm. donc yooyu ça fait trois ans moo ngi amul yooyu dañ ko war di renouveler ñuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb ba nga xam ne yenn yenn euh, tiraillement yi du am du am parce que boo gisee ñoom booy kay rek génn fii mhm. managers yi génn euh, euh, président des amateurs génn fii ku nekk di wax mhm. di tirer sur le CNG je pense que ñoom ñoo nangu loolu même la ministère des sports bu leen ne doo leen wax bilan bi man rek ngeen ko war a jox mais ñoom pour rafetal seen der ak ñoom fi ñu toll parce que ñëpp ce sont des professeurs boo xool ñoom ñëpp làmb moo tax ñu àgg fii donc pour rafetal seen der mm-hmm. dañu war di def bilan di wax ak sénégalais di nga wax ak journalistes yi nga xam ne ñoo ngànk làmb ji euh, jërëjëf mbokk téléspectateurs yi yaakaar naa aussi ci ci ay minutes yu néew rek mu ndaw rek <laughs> waaw pour yokk toujours rek comme mm-hmm. man papalaat laa te damay defar journalistes yi aussi yéen ñii mm-hmm. j'espère que war ngeen gën a mën a gëstu pourquoi pas soo leen déggee dara ne xaalis baa ngi dugg fi mu dugg fële xam ko yen da ngeen ko war a laajte dem CNG ndax yow mu yéen journaliste yi mës ngeen dem CNG laaj leen ne leen lii ak lii ak lii nu mu demee ba pare yéen xam ngeen ne di doon un exemple beneen exemple boo xam ne mu ngi ci CNG 48 fédération yi fi nekk ak comité national provisoire CNG rek moo ci am oto wala ba keneen koo xam ne xëy na xaw ma ko utal ko chauffeur di ko di jënd essence sans compter yeneen discipline sportive yi nga xam ne mu ci ne comme lutte sans frappe ak lutte olympique bu nga xam ne buñ demul championnat d'Afrique dañ koy financé xaalis boobu fan lañ ko war a kon dama leen di yàqu quoi parce que seen conseil la en même temps parce que toi de presque quinze ans bi nga soo ñu la fi ma fekkoon yu mel noonu ngeen koy dem di gëstu parce que yaakaar naa waaw waaw da nga posé question euh, yéen a ngi koy gëstu waaw loolu dem vers le CNG. ñun da am nañu benn photographe ak benn journaliste buy dem au niveau du CNG pour recueillir ay informations. Mhm. juste et vrai nag. est-ce que mi ngi yomb ci yéen. non dafa yomb suñu parce que ñun bu ñu ñëwee dinañu gisante ak le directeur administratif du CNG muy Ndiambe Diop. Mhm. dinañ jox toutes les informations par rapport ak mbër yi ñu dagg le le week mhm. par rapport ak sanction yu am man damay déggoog Armand Ndiaye à chaque fois daf ñuy waxtaan te yaakaar naa ñi nga xam ne tey ñoo bokk ci association des journalistes et techniciens de la lutte ni ñuy œuvrer ñoom noonu la ñuy œuvrer mm-hmm. donc ñun lu leer la ñu bëgg mais li ñuy lu leer la ñu bëgg dañu gën a bëgg nag Alioune Sarr ak équipe am ñuy gën a communiquer di def ay conférence de presse waxtaan ak nit ñi nga xam ne yenn dut yi dootul amati si si seen Moustapha mhm. waaw jërëjëf je pense euh, bëgg a tegu place am nag mhm. nit ñaa ngi bëgg a toog seen chaise mhm. parce que sortie bi président Alioune Sarr démb gën na apaiser nit ñi ñu toog c'est jaadu na parce que personne morale aussi des fois dafay laaj nga génn wax mais aussi foog ma fàttali la nag tous les ans CNG dafay convier woo presse wax ak ñoom day wax ak manager yi. day wax ak les lutteurs. composant bu nekk dina la wax la pourtant loolu doon waaj. mais dañu war a seetlu aussi dafa gàttoon trop xat trop ci diggante bi lamb tëjee bi mu tëjee lamb daan tëj 3 mois. koor koor gi songuñu benn mois bi ci biir koor gi sax CNG bi dafa liggéey CNG ren defuñu pause. donc bu noonu nag dafa xawoon xat mais pourtant nag ñu ngi doon préparé nag pour rencontrer composante yëpp malheureusement seytaan laa koy tuddee. dugg ci diggante bi day am nag. mustaam ci si làmb lii am xew ni ren mësta am mais comme que am na ba pare nañu jëlee si suñu xel yi suñu rakku mbër yi le président Kayre ku nekk discipline ko xamal ak respect aujourd'hui bu génnee xëy na am na am na côté bu mu am droit génne am na lu mu war a parce que ku nekk nag ci li ngay liggéey nag da nga cay ñaxtu xëy na xëy na defin ba nag la nit ñi di sikk mais nag jaadu nag en tant que président en associatif mu ñaxtu waaye ñaxtu ba nag na ko ñaxtoo fu mu ko war a ñaxtoo rek mhm. këram la CNG na ñëw CNG ñaxtu fa bu fekkoon CNG nekk en pleine réunion mu dugg si amul bëgg wax ñaa ngi ko toogal. merci CNG transparence merci beaucoup encore une fois. merci Moustapha merci euh, doyen Moussa Dia Ibakan jërëjëf ci ni nga xam ne jàngat nañ ko ci sortie président Alioune Sarr dañuy dem nag seetaan yi ki nga xam ne première sortem di waajal combat ndax ku ne xam ne Gaston production 11 décembre lay wàcc ci làmb ji ak combat bu mag combat boo xam ne waroon na mën a tëj saison ñu ubbee ko saison diggante Baboy ak Nes ñu seeti Baboy ak état de forme téléspectateurs yi defoon nañ ko daaw fekke déwén tabaski gaa ngi ñëw TFM àndandoo Sofia ngir indil leen xarum tabaski ba ci seen biir kër duñu ci yam ndax dinañ la andil ay loo yu am solo yoo xamante ni moom lay àndal moo ne Express daal di teew nag ngir ñëw indil la cinquante mille boo demee marché kon mbokku téléspectateurs yi gaaw leen gaaw mën ngeen a bokk ci ñooñu di koy gagné. pour bokk ci gagnant yi woote leen au 628 09 09. man nag su ma daan ñëw dafay am ñu may àndal ana samay mbokk yi ma daan àndal. nouvelle promo SMS gratuit à gogo de Tigo. Ils vont se lancer un défi. Sont-ils bien préparés Lequel va gagner Attention, prêt, go pour participer, envoyez 3 SMS, quelle que soit la destination. Et tous vos SMS envoyés seront gratuits jusqu'à minuit. Et vous, êtes-vous prêt pour le défi

di gërëm sama yaay di ñaanal sama papa fu mu ne yal na ko dàqal fii yal na ko yàlla xare àjjana di nuyu sama sëriñ Mouhamadul Habib Mbacke di ko ñaanal mu dem penk jàmm ñëw jàmm bi jaay rasulullah alayhi salaam di ñaanal ñëpp ñuy aji màkka yal na leen yàlla yóbbu ci bisimilah rahmaan rahim indi leen ci bisimilah rahmaan rahim te lépp lu ñu fa ñaan rek yal na ko yàlla yant bi nangu ci barki rasulullah alayhi di nuyu mbokk Sénégal ñëpp. nuyu waa TFM ñi fa nekk ñëpp ba ci seen njiit yu Ndour ñuy directeur beeg ñëpp commercial beeg ñëpp ak ñëpp di leen nuyu. làmb yàlla moo ma nattu ma judd ci quartier bi nga xam ne ay champion ñoo fa nekkoon sunu papa papa Diop mbër mu ngi fa woon sunu papa Fallaye Balde euh, Mansour Diop Mbacke Ba Balla Bèye numéro un. waaw ñu juddoo nag daaru fekkoon fa suñuy grand yi nga xam ne yu ay jàmbaar nañu woon ay gëree nañu woon ñu man ndeysaan dem si yàlla Demba Fall ñooñu nga xam ne dañoo doon bëri foofu ay mbapat ay ñoom Babacar Mbaye ñoom ñëpp ñi nga xam ne fan la nekkoon daaru ñu bëgg bëri daal ma nekk booy juddoo foofu quoi. Balla bi ki ma ko tuddee yàlla ko yàlla xare àjjana Aline saar la mu ngi dëkk cité police dafa am benn mbapat mu amoon cité police. fekk temps boobu sa mbaab daf ma yóbbu gore man presque gore laa nekkoon sa mbaab malal yàlla na ko yàlla xare àjjana di profité di nuyuwaale waa gore euh, ñoom ñëpp euh, léegi ba ma jógee gore ma ñëw si mbapat mi fekk fa benn séeréel buy bëri daan fa ñu bari ma ñëw jël séeréel bi daan ko Aline Sarr moo ma tuddee Balla Beye numéro un kii mooy Balla Beye numéro un Aline na yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na suñu borom yokk leeram combat gu ma gën a marqué ci sama carrière bu may bëreeg Cheikh Mbaba parce que bu may bëreeg Cheikh Mbaba bu ma jëlee avance dafa am sama grand yoo xam ne dana ma dangaa ngaa dof yow Cheikh Mbaba moo gën a mën a bëre ci àdduna man leen Cheikh Mbaba maa ko man sama benn grand mënuma nooy def ba daan Cheikh ba ma ne ko Cheikh Mbaba bu arbitre sifflé dinaa ko gëdd heure bu ma songee dinaa ko bal ndax lu mu gaaw gaaw dinaa ko bal mënuma boo daanee Cheikh Mbaba dinaa la may cent mille ma ne kon ne bu yóbbu nga préparé deux cent mille te xam ne naa ko daan combat boobu moo ma gënoon marqué parce que dama doon topp dëkk Cheikh ba Cheikh Mbaba yoxu suma dóor ma affaire bi métti ma nag jamono jooju Cheikh Mbaba daan Mansour Diop te muy bëree entraînement ak Mansour gis ni may def ma xam ne Cheikh Mbaba mi man maa ko man ma dajeeg Yaamu Sarr yàlla na ko yàlla xare àjjana géej ñuy bëri maak moom ma daan ko daan bu gaaw mu ne ma booy mu a ma yow mi yaama daan mu ne ma da ngay daan Cheikh Mbaba parce que yow ni ngay bëri nii dafa garaaw noonu laa ñëwee si làmb nekk ci di bëre ba yàlla daal dimbali ma ba ma àgg fu ma àgg. combat bu ma gën a met euh, bett mooy maag Xaadim Ndiaye parce que Xaadim Ndiaye mosuma xalaat ne dinaa bëri ak moom mooy li wax ni Xaadim ñu ma gën a yee ci làmb ci la bokk parce que dañu bokkoon Daaru Rahman sama sëriñ sëriñam di sama magu sëriñ ma jàppe woon ko ab taalibe jàppee ko xarit jàppee ko lépp. Euh, boobu daana ndaje si mbapat daan naa ko daanaka ñeent yoon yi nga xam ne fekk naa ko biir caaro yi fekk naa ko barñi fekk naa ko tëngéej fekk naa ko ndar yooyu yëpp ma daan ko léegi nag ñu daje kër sëñ bi ma ni kii daal ñoo bokk kër sëriñ bi ndekete mbër day waajal mbër foofu laa gën a xamee ni mbër day waajal mbër avant muy bëri ak moom ci combat boobu ci laa yeewoo parce que dama ne woon xaarim dama bari ak moom mais ba ma xëyee rek ñëw ci làmb ji xaarim dëkk ma affaire dafa maa ma mer nag ma jëlee ko ak xol fekk na xaadim préparé na ma bu baax waaw loolu moo ma gën a yee na nag lu ma gën a yee ci làmb loolu ci la bokk. Sur le fond ayant le moral à zéro Là d'où l'on on apprend à repartir à zéro On garde la tête haute, on apprend de nos fautes Même le moral à zéro boo ñëwoon fekk ma fii may entraîner ak jeunes lutteurs yi da ngay xam ni Balla Gaye dafa yàgg entraîné mooy li may diggal booy chaque jour man yàlla daf ma dimbali xëy na ci sama combat yi mag yi mujj sax ci laa commencé laal musculation mais man foo ma fekk damay travailler ci géej dama respecté entraînement waaw ay at boo mu musaan gis dof nga may teg dof lu ma sol sax yére lu dul ay blouson nit na boo amee loo bëgg il faut nga sacrifier sa bopp may ñafe mu ma rombee sama yenn gars yi ñu ne ah kii dafa dof kii affaire dof yi rek la bëgg ak yooyu ma ciy góor góorgóorlu di ci ñafe di ci ñafe di ci ñafe ba yàlla dimbali ma ma agsi fii ma agsi mais lu la nit mën ti wax mooy entraînement tey boo ma xoolee nii da nga wax ni jeune la booy yóbbalu ñu ma tey bu am na yenn booy xam ne sax bu ma àndee ñoom da nga xam ne booy yi yi bu neen damaa màggat dafa dof rek ku jeexal mooy ku dem ku nu jëndal juróom-ñaari mètre percal jenc la nit du xeeb kenn man duma ma kenn duma ma xeeb suma adversaire merci. on apprend, on partira zéro. On garde la tête on apprend de nos fautes. Le mot à la zéro, on repart à zéro. on compte à nos palmarès Oui, combien de plaies on porte avec des compresses chez moi quand on tombe on se relève Même un chien on évite la lèvre Après un cauchemar chez moi on rêve Nos pères ont porté beaucoup plus lourd que nous Y'avait qu'en faisant la tahiyat qu'ils étaient conjurer le sort ici, je croquerai le monde, même si tu me pètes les dents Même si l'hiver persiste, j'imposerai le printemps dinaa wax ci nees tuuti parce que nit ñi dañuy umpale benn affaire dañuy tam boo waxee ci nit lu baax ñu ne xëy na da koo ragal wala dangay am looy moral lam amul moral ku nu fay xaalis fay sa moroom xaalis nga ànd ak say mbokk ma ànd ak samay mbokk te ku daanu rus amul maslaa waaye nag sport la dafa laaj ñuy waxante lu rafet tamit ci la nit bu la defee lu rafet da nga koy xam nees musuma dépassé loolu gën na tax ma sawar a bëre moom te it il a prouvé ni ay moromam pourvu woon ba ma may leen sens noonu la pourvu nag il a mérité de lutter avec moi bu baax maa moom bu nu dajee ay cinéma noonu dañuy kaf ree bu fekkee sama poche dara sax dama ko yëkkati jox ko suma xarit ku baax la mais liggéey moo nu boole dañuy def ba mu saf sap comme nu ko waxee nee na moom mooy mborodi bu bu mag. Yeah, the Le moral combat booy bëre dafa am lu mu laaj. nees kenn du bëri moom te doo entraîné doo am doole kenn du bëri moom ndax doo préparé ci xel parce que boo xoolee nees ay at yële ak nees yi bokkatul xel mi dal na te mbër bu am confiance moo gën a naqaree bëri xel mi dal na. tubaarkàlla kaar gannaaw gi baax na te mu ngi liggéey te gëm na boppam te man loolu dama ci sawar daf ma neex ci mbër mbër mbër bi nga xam ne du reculer day fayit daf maa neex parce que man moom bëre damay ñëw bëre daan wala daanu man loolu laa xam loolu mooy su ma nekk ku may bëgg ci may bëgg ci may bàyyi ci may bàyyi parce que ci loolu laa def ba ak si fi yi te yaakaar naa ni booy lim ci Sénégal mbër yu ma gën a rafet palmarès bariwul quand nees ku xam ne dugg ci nees ak bëre nees du yéex ci fulla ak fayda lay bëree ci jom ku xam bàll bay xam nga ba mu dalee takk ngem ba tey nee naa leen bis ma ndaree ñëw ci làmb duma def lu dul fulla ak fayda keroog laay tekki sama ngemb ci làmb mun na yàgg mun na gaaw xam nga làmb moom da ñëw préparer lii nga ñëw ba si biir làmb ji gis leneen man nag en général sama làmb mu ñëwee ba si biir géew bi dinaa xam lu may bëre. la la tête haute on apprend de nos fautes même touchant le fond le moral à zéro la douleur on on apprend à repartir à zéro on garde la tête haute on apprend de nos fautes le moral à zéro on mu ne bu bëree ganaar. ah ganaar maa boo mayee pooj bi dara dana si desaat mooy kon day gën a neex kat xam nga ni ganaar gunu roof pooj kat noo def xaru wuti ko pooj bi est-ce man pooj laa bëgg ah xaw ma de est que man pooj rek laa bëgg mën naa wut laaf mun naa wut côtelette mën naa wut si ko waaw damaa bëri pexe de <laughs> yaay sama xarit bu ma amee ginaar ah moo mayee pooj ma duma jël dënn wala laaf yaay sama xarit nag <laughs> jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ci première sortie balle Beye euh, numéro 2 ci fañ ko fekk muy def musculation foofu euh, foofu nag euh, Moustapha yaakaar naa ne Balla Beye ah am na fu muy waxee. am na fu muy waxee <laughs> je pense que xam na ki muy dajeel xale la xam na ki muy dajeel am na doole xam na ki muy dajeel toll na ci rampe de lancement boo xam ne tey fi décoller rek moo ko dese. muy muy muy nees. combat bii ak nees mooy bëreek ku bëreek Yékini bëreek ku bëreek euh, Bombardier bëreek ku bëreek Gris Bordeaux moom la nees ne moom lay bëreel kon nees foofu euh, tableau de booram bi baax na. parce que ku bëreek ñooñu ku daan Bombardier boo ko daanee <laughs> ah am na looy am ci làmb mhm. euh, ku daan Gris Bordeaux boo ko daanee am na koy daan ci làmb ku dajëk euh, Yékini trois fois mhm. kooku ku ko daan am na looy daan ci làmb kon moom it Baboy xam na ki muy bëreel euh, defe naa am nga lecture ci ci préparation waaw ah, préparation Baboy boo koy gis combat mhm. bi des na des na suñu des na deux mois ci kanam le onze décembre le onze décembre donc damay xool rek ne gis naa Baboy peut-être volume bi ma gis ci moom nii seentuwu ma ne bu àggee ca combat ba dana ko arrangé parce que baaboo itam ngeen seetlu ne victoire yi mu am yëpp mu ngi ko am ci rapidité donc nag vitesse nag boo koy def da ngay nekk poids bu normal sa poids de forme ngay am pour vitesse mais su fekkee yokk na poids ba parce que Balla bi dee tam booy seetlu mi fi bëri yëkk ni première fois ba dafa nekkoon ci allure muy bëri Gris Bordeaux dafa nekkoon ci allure muy bëri Bombardier dafa moomoon léppam ginnaaw bi mu fa jógee nag mu bëri yëkk ni war ko ndomb yëkk ni daan ko dafa mel ni dafa mel nag nee naa wuti poids ni gars yi ak dib gi mu dib ba mu wutee ba léegi nag moo dul gars buy ñëw gars yi dañ koy gis téye ko mhm. mais gars yi ñu bëri yëpp leen attaque song la ñu téye ko mm. te bu njëkk mën ñu koon téye ndax gaaw waaye mm. booy dina dugg génn cinq fois mm-hmm. gëj na ko def nag su ko bëggee amaat nag foog mu liggéeyaat encore rapidité ak vitesse am dama koy liggéey nag moo ko xam mais daal poids de forme bu baax la war a indi pour bëreeg nees nees nag mënuñu wax ci moom dara nag xanaa rendez-vous rek boo ko gars yi jëlee ba teg ko ñu mën a évoluer ci moom ngañ ok euh, jërëjëf Moustapha Guèye daañu ñëw mardi bii di ñëw ak euh, nees tamit ci wàccaayam Euh, bu ko defee tamit ñu xool état de forme am euh, mardi bii di ñëw ci biir Rofo euh, ñi ngi ak ki nga xam ne mooy Roxee Thiam nekk trésorière nga xam ne mooy association bi nga xam ne moo ëmb journalistes yi ak techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci biir làmb yow Roxee yaa yor koppar yi xanaa da ngeen bëgg tëgg làmb ah làmb ji day joxe xaalis de mais jënd ngeen licence. non war ngeen tëgg. jotaguñu jënd bi. waaw eh. di la dalal di la di la wax ne ñi ngi kontaan sa teewaay. Mhm. ñu ñoo gën a kontaan ci invitation bi ñu def parce que c'est la première sortie euh, bu AJTL te gis naa ni permettre nañ ñu lever yenn nuances yi ci amoon yenn incompréhension yi. ci appellation rek ngeen def ko ci caatu émission yi. waaw ci caatu kii mooy caatu émission yi. mooy roofoo. waaw mooy roofoo. donc ñu si ñu si kontaan aussi. Mhm. bon comme sama confrère yi ma précédé li ñu wax rek man damay accentuer sama wax bi si woo journaliste ak technicien yëpp ñëpp si lañu bokk. Mhm. caméraman yi photographe yi ak journaliste yëpp bàyyiwuñu kenn presse écrite rajo télé ñëpp ñi nga xam ni daal ñu ngi yëngu ci làmb ji. ñu ñëw ànd ak ñun ñu apporter suñu pierre à à l'édifice joxe suñu petite contribution mhm. ci làmb ji ci suñu xel wala ci suñuy bindee mhm. pour pour ñu gën a defar daal bu mu gën a gën a defar bu mu gën a baax mhm. loolu daan ngeen bëgg gën a leeral affaire yi daal euh, li li lëndëmoon leer te it bu leeree ñëpp xam ne leer na euh, je pense que làmb famille la euh, dañu bëgg ñu dellu soit xel yi bu kenn topp kenn ci waxinam bu kenn topp nit ci nangam xoolal li ne ci ginnaawam peut-être yàgg waajuram la woon peut-être yàgg nijaayam ci ci côté waajur peut-être nangam mais nañ ko yem rek ci cadre sport nañu bañ a dugg ci biir di di lux mbóot di lijjanti koo seetlu rek xeeb ko koo seetlu di ko xeeb ndax di nga gis loo ko xeebe kon je pense que euh, dañ fi nekk ak suñuy pap suñuy nijaay famille lañu nañu yem rek ci cadre sport te bañ a weesu cadre sport te it ñuy wodd wax yi di ko wodd te xam ne lu ne mën nga ko laaj ci teggin te ku ne it am nañ droit laaj la ku ne am nañ droit laaj la ñaar rekk nekk ci laaj <laughs> tontu la mbaa ñàkk la tontu waaw kon buñ ko jëlee dara ci loo xam ne li laaj nañ ko rek euh, tontu rek mbaa ñàkk tontu bala nga dem fa nga ko war a laajee tamit boo xamee fi nga ko war a laajee kon bul tergiverser muy indi coow demal fa nga ko war a laajee ñu leeralal la loolu yëpp mi ngi ci biir làmb euh, di ñaan yàlla weeru yi nga xam ne weeru yërmande la di weeru tabaski bi ñu weet euh, yàlla dimbali ñu ci te weeru jàppalante la weeru yërëmante la weeru dimbali sa mbokk la kon nañ ci baalonte àq te xam ne rek ñu ni nen la làmb jee toll noonu 48 euh, fédération yi fi ne te làmb nekk ci biir boo xoolee ah làmba ci yëngu ni muy yëngoo de kon nañ ci sant yàlla te bañ ko yàq lépp lu koy yàq ne te jóge si biti ngal nañ baal nañ ñu baal li ne sunu kanam nañ ko teg ci cadre loolu muy politique nañ ko teg foofu te bañ koo jaare ci biir làmb ji mm-hmm. am na yu bari ñu ko ci jàng am na yu bari ñu ko ciy gis te bu wax jotee daañu ci wax parce que kaay mu wax la waaw booy wut mbooloo mën nga wut mbooloo mm-hmm. waaye nag xamal fa ngay yem ci booy wut mbooloo loolu dafa am am na ñu ne ci biir daañ ci wax man buñ ci ñëwee dinaa ko leeral ma mu leer nañ ndax lu ci bari am nañ ci jàngat lu ci bari ñu ngi koy gis lu ci bari ñu ngi koy nangam attention géej gi sax boo ci napp ah am na jën yoo xam dañu naan bàyyil jën yooyu ah ndax ñu mën a produire ndax dañu bëgg jën yi gën a màggat waaye boo ñëwee nag ah attention yor benn mbaal bi am na mbaal yoo xam dañ koy interdit ci géej kon ñi napp si ci biir làmb politique di nappa ci biir na ñu xam jën yu ñu war a la ñu war a jàpp. Euh, loolu ma yokkal la fa parce que ngañ euh, làmb France xajatu ci léegi. Mm-hmm. te dañ ko ci dugal léegi. Mm-hmm. léegi journée dañu bind leen neex ci làmb dañu bind ci promoteur yoo xamante ne amul guddi amul bëccëg di bind ci euh, mbër yi loo xam ne amul bëccëg mbër yi di kaas yooyu lañ ko dindi lamb dafa set. képp ku ñëw pour bukk ñoo koy def. les ñu ngi loo ciy tontu. dañuy bind ay ko bàyyi mu tontu. man lu ma ciy tontu mooy xam nga ñun ñii bind ci làmb ji ñun ñëpp xamante nañ xamante nañ suñu biir. Mhm. da day ñëw sax stade bu kenn ñëwulee sax dañ ne ana diw. Mhm. pour te dire que journalistes yi xam ni ñoom ñu ngi bind si làmb mhm. ñun ñëpp xamante nañ suñu biir en général soo gisee ñu wax ci mbër loo xam ne mbër bi estimé na ni waruñu ko woon wax. boo xoolee mooy journaux yi nga xam dañu am ay orientation people wala waaw ñoom ñu am ñu ne ah, général waaw te en général soo xoolee signature bi doo mën a def benn doo mun a xam kan la parce que xamuloo ko association bi lu la bëgg mu leer. déedéet association bi daf ciy ah. taxaw bu baax. parce que dañuy veiller. Euh, respect déontologie. Mhm. veiller ñu def suñu liggéey bi. Mhm. ni ko waree parce que gis nga léegi. ni ko Cheikh Anta waxee sax. waaw mhm. parce que tamit xas yi ñuy xas journaliste yi lu leen lu ñaaw ñu tekk seen kaw. lu lu dëng ñu ni journaliste bi la. yooyu yëpp dañ ciy veiller ba nga xam ne ñaare niñ koy defee. waaw bu ñu xam nga tontu may ma rek bàyyi kooku maa leen tontu. bu ñu siiwagul ñëw ci presse bi. boo siiwee nag ba commencé am sa xaalis. Mhm. di am di am loole ne bon war non attends mhm. mbër dafa war am ko conseil en communication. Mhm. ok képp koo xam ne kii da nga jël sa nopp teg ko ci presse bi sa làmmiñ teg ko ci presse bi te amoo lu dox sa digganteek ak presse bi di nga wax njombe te gars yi dañ koy bind. dem leen li ngeen liñ leen di fay wuti leen ci conseil en communication ñu leen di xelal boo bëggee wax ñu xoolal la ngembal la wax ji ba mu rafet nga génn ko mbër yi ak promoteurs yi ak képp kuy tourner autour de la lutte nga ñoom dañu defal dañu defal à cœur ouvert sax nga wax deux heures de temps ñu génne ñetti ñeenti ligne denc di xaar bés waaw ñu méngoog moom ñu tegal la ko fa waaw bu ko fee ñëpp sikk la fekk yow waaw mais nag mais nag mais nag loolu buñ koy def ñoom it nañu ne lii ñu bind ca waxtaan woon la woon leeral ne du lu bees léeg-léeg tamit gars yi génn loo xam ne voilà. xam nga euh, xam naa Moussa Fall lu mais en général. waaw ñun li ñuy bind yëpp ñoom ñoo koy wax. Mhm. c' que ñun aussi benn problème la ñu am te fi mu ne nii te vraiment euh, kenn ñemewu ko dénoncé si presse bi xam nga ñun dañuy liggéeyandoo ak ñeneen ñun dañuy bind. def suñu ay titres ñu xëy revue de presse bi mu ñuy bëgg rey. revue de presse. revue de presse. ni ñuy tawee sa wax wala ñu tawee sa titre. Mhm. wala ñu commenté article boo bind. jox ko orientation boo xam ni. xam nga yow miy bind sax joxuloo ko ko te boo mm-hmm. demee lii journal doog si fekk mm-hmm. kon yenn saa yu si yu si ëpp daal mbëri sikk wala ñu ne yow wax ma la woon lii ah. revue de presse bi la soo ko liiree ci nit ki bu ko liiree dina xam ni kat lii nekkul en réalité ci biir article yi mm-hmm. xëy na ka doon moo ko taawi wala moo ko bëgg a féetale fenn wala moo ko comprendre neen mm-hmm. mais ñun lu ñuy bind en tout cas maanaam sërxal si lu mel ni ŋàññi waaw lu mel ni ŋàññi te yow ŋàññoo woon ba ngay bind voilà jërëjëf gars yi loolu dina leer ci kanam euh, dinañ ci ñëwaat ci yooyu yëpp junj ko euh, doyen andi sport waaw léeg-léeg am lu surfe ci biir làmb gars indi ko le cas baaba xale boobu affaire am daf ma daf ma touché ba léegi. mbër mu ñu jox avance. Mhm. préparé ko ménager engagé ko nag. Mhm. ba pare mu ñëw ba ci làmb ji ñu ne ko ak too cas bii boobu ba léegi bëggoon naa ci dajek yow ndax kilifa nga ci ànd sport yow. voilà kon li nga xam ne moom laay jëkk wax foofu. foofu responsabilité ménager bi nga xam ne responsabilité te man euh, euh, médecin bi ko defal kayit gi dafa engagé. Mhm. ndax xam nga kii ay cër yi nga xam ne moo nekk ci suuf si muy ñaari loxo yi ak ñaari tànk yi mm-hmm. surtout tànk yi mm-hmm. demewul noonu mm-hmm. melul ni yeneen ñi ñi mel kon war nga xam ne kii mënul compétir ak kële waaye ci biir handisport am na ci nit ñoo xam ne du dégg wala mënuñu wax te ñu ngi ci écrit yi di entraîner fi mu nekk ñun préparé nañ benn document boo xam ne sax am na bu ñu jox jot jox Alioune Sarr. Khalifa mhm. Sow guddeeg bëccëg suba ngoon dama ko ne léegi dañu fexe ba am na benn suur bu nekk ci écurie Balla Gaye Umar Sakho am na benn suur ba fa nekk. Mhm. te gars yi kenn mënu ko daan. Mhm. ñu ne kon ku mel ni kii war na mun tax ñu defal beneen règlement. maanaam ma doxe benn exemple bu ndaw. ñu jël ñaari drapo comme ku dégg. ñu jël ñaari drapeau drapeau bu weex. ak drapeau bu xonq. drapeau bu weex bi mooy lamb ji commencé na bëre fi ak bu weex baa ngay taxaw rek da ngay bëre. Mhm. waaye bu xonq bu taxawee bu bu gisee bu xonq bi rek automatiquement da nga war a arrêté. arrêté bu jël la amee dinañ ko xam. Mhm. ba yaakaar naa ne loolu ñu ngi ci bu baax suñu président santé seen añ. Mhm. mu ngi ci te mhm. yaakaar naa ne Alioune nañu comprendre bu ñu gisee waxtaan yaakaar naa ne bu ñu ñëw ko pourquoi parce que. sur le plan international kooku nga xam ne moom lañ dàqoon fële. bu ñëwoon champion d' Afrique IJAFAF yi mooy les Jeux africains des personnes handicapées d' francophone. bu ñu koy boole mën na mu am fa dara. maam man personnellement parenthèse la ci wàllu natation le 29 octobre euh, ci piscine olympique fukki mbër ah <laughs> bi yoon nag traversée bi dina am problème parce que fukki mbër lañu ñu bëgg a sélectionné bokk leen ci traversé Dakar Gorée euh, le 29 octobre euh, ci piscine olympique nag lañ leen convoqué pour préparer leen di lutteurs yooyu nag ci li nga xam ne li ah dix fois lan. dix fois cinquante a nager. ngañ ma gën lu ko leeralal rek waaw fédération sénégalaise bu natation. Mm-hmm. te euh, le docteur Mohamed Diop nekk le président. Mm. nekk aussi sama promotionnaire ñu defandoo jeux jeux africains jeux olympiques bokk campagne yu bëri. dafa sollicité mbër yi. Mm-hmm. bëggoon équipe bu nekk am mbër mu ko représenté. ñu def relais. Mm-hmm. Euh, dix fois cinquante mètres. Mhm. suñu xel dafay dem kon nag ci mbiru lëbu yi dem ci mbiru tukulóor yi nga ne ay cubala lañu dem ci mbiru séer mën a fay parce que aussi dafa am mhm. mhm. mu bëree fin de saison ba léegi kenn déggu ko suñu ci Elton suñu xel dem ci mbër bari yi xam ne ay doomu lëbu lañu mën a fay suñu xel dem aussi ci président des anciens muy Manga 2 parce docteur à doo ci bokk compétition bi waaw da ngay am 30 ans jëm kaw jëm kaw hmm. ne aussi que dañu bëgg a dekkal sport hmm. parce que bi mooy deuxième édition bi sport vétéran bu ñu koy dekkal nag mooy ku bëri ba bàyyi bëri ku football bàyyi hmm. yooyu ma lim yëpp dañu leen contacter mbir mi nag samedi la incha allah le 29 ci piscine olympique à parti nag de 15 heures. Eh, jërëjëf euh, waa ci yow lay ci yow la ñuy tëjee euh, ñëw nag euh, ci programme mu lambu tabaski yi jukki ko rek Ndeye Ndiaye Tyson numéro 2 moom moo koy amal lendemain tabaski ca Ngunjaan ci teewa di drapeau nag à El Hadji présentateur RTS moom lañ koy def ak Alpha Bodian Bouba 40 moo fay dajeek Abathie Euh, euh, ki nga xam ne mooy euh, Baye Fall bu écurie Ndakaaru di dajeek dix mille problèmes ñoo cay daje waaw waaw <laughs> Baye Fall ak dix mille problèmes ñoo cay daje FC Dakar di dajeek FC Ngoundiane kon euh, lii mooy programme mu lendemain tabaski euh, ci la nga xam ne euh, mooy Ngoundiane ci ay si tukku liggéey bo bu réforme boo ñoom tamit lendemain tabaski muy première édition grand gala de lutte avec frappe diggante Pape seen numéro 2 ak lay Pythagore Kewel ak Moussa Dioum ñoo cay daje ak ki nga xam ne kii Pape Diouf di dajeek Thiat Boy Guèye di dajeek Paul Maurice ci li nga xam ne mooy onzième édition bi tamit ci li nga xam ne Euh, mooy euh, ba mbooloo production euh, di fallu moom it di li nga xam ne Thiely bu fan di dajeek Michelin Thiaw 3 di dajeek Boy Séeréer foofu nag ca Toubatoul la boobu su ñetti fan après julli gi la Euh, drapeau Gaston Mbengue troisième édition ak Wuli production Assane Faye di ko bëree ak euh, Ndiaye Lambay euh, ci li nga xam ne mooy takku liggéey production bu Ngunjaan ci ngeel jonn di dajeek seng sengay sangay numéro 2 Pakala di dajeek R4 numéro 2 di dajeek Louis Thior ci loolu lañuy ñuy programme mu tabaski yi dellu siwaat nag ci combat bi nga xam ne diggante bombardier la ak Tafatine combat bi taxaw na Luc Nicolaï Enco moo ko amal voilà diggante Bombardier ak Tafatine combat bi nag ci 2012 bi lañ koy tëgg euh, coow lu bari woon na Luc Nicolaï moo ko mujjee décroché euh, mu taxaw tey ci talaata ji ñaar fukki fan ak euh, juróom ñu war ko bëre ci année 2012 bi mbokku téléspectateurs yi ci la ñuy tàggoo ak yéen nag ci li nga xam ne lii mooy seen émission Roffo doyen Moussa. waaw xam naa ne waaw looy tëjee waaw li ma doon tëjee rek mooy xam naa ne bëggoon naa trop comme al Abdoulaye Diop Matar ku dégg ndënd la ku mën mm. tuus la mm. bëggoon naa moo ànd ak Gaston waaw ak Alioune Sarr waaw ci ci gaal ci bu ñu boolee ñaar ñi ñu boolee euh, euh, euh, Yekini ak Oumar Sakho waaw ñoom bés boobu ñu ubbi làmb ci tuus ah da nga leen bëgg a tuus waaw dama bëgg ñoon ñu tuus daal <laughs> waaw attention ah, moo xam naa Diop Matar sama attana fa pàkkat ñi ba bàkku waaw loolu laa bëgg <laughs> jërëjëf doyen Moussa Dia di ko gërëm di ko sant bu baax a baax a baax ci conseil yi nga xam ne dina koy jox ku ne ndax ku ne yaakaar nga sa conseiller la euh, loolu moo ko war te mu koy def euh, xam nga jàngalekat euh, bu bu retraité vraiment day joxe ay leçons def naa yéen carte membre yi fu nu mu toog fu mu toll. doxee commencé nañ vente bi. waaw moom moo bëggoon sax profiter ci occasion bi. Mhm. pour ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ bokk pour ñu ñëw. Mhm. carte de membre yi sont disponibles. loolu lañ koy jaaye adhésion bi 5000 la. 5000 waaw carte mhm. waaw. yéen ci ngeen bokk fii chiffre bu leen ne wax leen ko. adhésion 5000 Casamance 5000 wax nga defee ñu mën a commencé déroulé bi moom mi ngi lijjit affaire xaalis Moustapha. <laughs> li may tàggoo mooy toujours rek dans le cadre yor poussé di ñëw rek. Mhm. mu doon demande vraiment sama poulain yi. l' association des lutteurs en activité. Mhm. booy Kayre mi nga xamante ne seq nañ moom nag ci àddina. Lac de Guiers numéro 2 bi nga xam bi numéro 1 xam ne mooy le premier vice président. Mhm. Khadim Gadiaga bi nga xamante ne maa ko formé Khadim Gadiaga man maa ko formé. Mhm. en tant que secrétaire général. Mhm. de l' association bu ma fa jógee aussi ba léegi moo fa nekk. xamal leen rek ne seen grand frère mu leen demande ngeen jël seen tànk jël seen loxo ñëw seen seen tutelle muy CNG bi nga xam ne yéen a ko moom yéen a fa ëppale. ñu waxtaan ak seen président Alioune Sarr ak membre yi fa nekk yëpp saa bu leen neexee ñuy waxtaan yoon ñu gën a yaatu ngeen mën a bëri seen sago mën a bëri seen xel mu rafet man loolu laay demandé te booykat yi demande naa la ko ci diggante surtout ngéyeen ak jaween mm. te ngéyeen ak jaween kal bu fort la li ma la demandé soo ko mayoon nag loolu daal yaa ko teg sa bopp jërëjëf eh, merci kooku seen ah. diggante la euh, vraiment diggante Kairé ak Moustapha Guèye mm. je pense que lépp ci defar la jëm ñu moytu seytaane te it defaraat sunu làmb te téye ko moom la ñu am fii ci Sénégal moom la ñuy tiitaroo mbokk yi ci loolu lañ leen taagu tàggu leen jox rendez-vous samedi ci stade municipal bu Yoff euh, diggante Cobra Pikine Mbooloo ak mobile bu euh, Grand Yoff euh, Birame ñi nga production di ko amal waaye dimanche Kandji production ci stadium Iba Mar Diop première édition drapeau Bara Gaye secrétaire général UGTL diggante a Sow ak ki nga xam ne mooy Khadim Sarr ñu koy wax Euh, mbokk téléspectateurs yi foofu lañ leen di tàggoo di leen bàyyi nag ak signature contrat Ousa Sow ak booy Sarr te di leen bàyyi ak Français Mbeur diggante King ak Bazooka. Bazooka Bazooka yow dama lay jugé 4 mois top 5 kii maa ko wax dama koy jugé 4 mois top 5. kii moom dañuy ñëw rek daan ko dem suñu yoon. kii dañuy ñëw jaar kawam jaar waxal bul kii dégg kii taxu ñoo jóg ñun dañuy bëre ba ñuy bëre xamuñu kan mooy King ba ñuy ba ñu juddoo la ñuy bëre ci àll bi la ñu dëkk. kuy sa maam ñu ne tubaabu joor. tubaab jool ku nàmp jox ko ñu ne Baye Fall tubaab jool ku mu ne nature père xam nga ni man maay bëre su ma bëree bëre feeñ te ci incha allah yow sa ngemb laal na suuf jërëjëf joxe leen loxo jox ko loxo jeex na voilà bi noonu voilà bi noonu jeex na aywa tonnerre aw ma lu ma wax moom um, ma yow xam ne kii ñemewu ma. barke maam Seera Fall kii ñemewu ma. barke maam Seera Fall maa la ñeme <laughs> ñemewul kay xam ci ragal laa jëm ak yow yow xam nga ne ñemewoo. doo taxawee dëggal hmm. ma dóor la nga wàcc. ñaar du nu gis maanaam yow lu leer kay laa lay wax nii. kii moom aw lu ma koy wax moom boo ko xoolee rek xam na ñemewu ma instant dafa nekk fi di wax rek waaw. su meegul yow. wii fii xoolal fii du laamu fii du laamu ji da ngaa pata yow yow eh, da ngaa pata bi la mar la daan bu raw laa lay daan yow. instant yi liggéey nañ lu ñu war a liggéey rek jëf rek a des mais kii waaye liggéey nañ war a liggéey jëf rek a des te xooli ñii ñëpp xooli ñii xooli ñii te kon foog ma liggéey barki Serigne Touba damay liggéey barki Serigne Adja Mbacke damay liggéey mais nañ ànd ak yar rek yar mooy lépp yar mooy lépp ak sëñ Babacar xoolal su ma naree tiit ci lamb yàlla ma yàlla faat bi sut man damay dee ndax fit waaw wuli wuli kaay ñu boole naka da maa may sànq sànq boobu yàlla bu mu la jig waaw dama ñaan yàlla suba ma daal la jël bu rëy bawul benn benn yàlla ndam te tewu ko yàlla na yàlla may ma wuli forus wuli yu mitee mitee miti daal ko jël bu amul bëri warante comme dafa xaw a guddi ngeen may ma ma sànni ci ñaari kàddu yi nag comme niñ ko waxee woon sànq ñi ci gën a fair ci gën bu bis ba bu bis baa dinañ leen jàppale bu baax a baax ci t-shirt ak li nga xamante ni mooy billet yi jàppale leen ci seen mobilisation ngir ngeen ñëw ci porté parce que bu ñuy wax sport aussi ñuy wax sport aussi sportivité da ci am solo mën nga far fi nga far ànd ak moom te du tee nag nga fell lenn ci li nga xamante ni mooy droit ak devoiru sa naatangoo loolu am solo la lii rek day wane na le 30 incha allah ku ñëw lamb ja soo yeexee doo am photo ndax UJTL ñu ngi koy xëccoog waa Pikine waa Pikine di ko xëccoog waa Fass waa Fass di ko xëccoog waa Diamaguène di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm rek di jox ñëpp rendez-vous le 30 incha allah di sant sponsor yi ñu ci àndal yëpp. man nag sama wax du ci bari sama wax du ci bari adversaire la ku ma respecté la jox ko cër le jour ji daal daal. la jour ji bu ñu ci yàlla yóbboo bu soobee yàlla sama contrat dinaa ko remplir ba mu mat sëkk. man maay wax ñoom ñooy nopp béboo ñu profité yuuxu li ñuy yuuxu billa dañu leer bu baax père yow laay waxal père li ma fii ñi dañoo reeree sëkk yow laay billaahi Xarim Sarr danaa la duma danaa la daal. waaw yow yaa xam ne waaw daal jeex na le 30 incha allah ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam naa koy ñaanal wér yàlla may ma ndam bu ngoon incha allah. how are you our fan where Mox thank you. Eh. suivez Mbeur sur la France TFM. TV France Mbeur avec TFM. TV sur France Mbeur sur TFM. I don't care, I don't give a care, you know what I'm saying? Suivez la France Mbeur sur la TFM. France Mbeur sur la TFM. Moi, c'est du Aforus. Le 30 octobre, ça fait du Woulib. wuli bien wuli wuli wuli wuli waat daan waaw. wuli qu'est-ce qu'il fait dans la journée. ah. wuli qu'est-ce qu'il fait moi. tu fais entraînement dans journée. et di récupérer et di manger beaucoup récupérer beaucoup après di manger du viande di manger cere je mange beaucoup après récupérer beaucoup après tu fais ak entraînement matin soir. wala y a une moi c'est moi c'est am fii fa sama jabar waaw am jabar oui non non pas de copine. combien de femmes. un femme un Gaston. Mon adversaire dama koy wax dafa tëddi il taxaw rek. il taxaw. il taxaw til waaw il taxaw til fait quoi. il fait la bagarre. et daar rek. qui est Baye Peul. qui est Baye Peul Baye Peul c'est un homme qu'est-ce que tu fais ici. je fais ici dama entraîne avec mon entraîneur Guy. Mon Guy, tu m'entraînes quoi. et ton alimentation tu manges quoi. le repas de suppu kanje de ceebu Guinard, tout le monde dimanche, hein, tout le monde dimanche, hein, tout le monde dimanche. Hein. 50 il a revenu le 4 décembre avec moi, moi je le cassé sa tête, cassé sa tête. Je prépare mon combat avec Nes bien, j'entraîne bien, je réveille tôt, j'allais à la plage, après je rentre à la maison, je lave, je mange un peu, je récupère un peu, après je viens à la salle, je fais musculation, après je rentre à la maison, je récupère, après j'allais en contact dans mon écrit avec l'écrit Halplar, on fait du contact, ouais. Oui, Ness, c'est mon ami. Hein. S'il fait un bon poulet, il me donne le cuisse. C'est bon pour moi. Je mange bien, j'aime bien le cuisse. Est-ce que je vais manger une cuisse Et je vais manger d'autres choses quand même. Peut-être je mange de poitrine ou de lard ou tout ça. Hein. <laughs> c'est la force qui fait la bagarre. waaw mais c'est l'intelligence qui fait sañse l'intelligence qui fait sañse le sañse le sañse. How are you? I very fine. Very much. Thank you. Eh, suivez Mbeur sur la France TFM. TV France Mbeur avec TFM. TV c'est France Mbeur sur TFM. I don't care. I don't give a care. You know what I'm saying? Suivez la France Mbeur sur la TFM. France Mbeur sur la TFM Lyon ce samedi ce sera encore exceptionnel Youssou Ndour et le super étoile au Tessar kañ la mbokk ñu ne ce sera ce samedi entrée 6 000 balcon VIP récupéré toile cosaan night mbokk yi xew-xew baa ngoog Sandaga agité lool Ndakaaru agité lool Medina agité lool lu ko agité loo ñu ne Youssou Ndour mooy tëgg cosaan night xale yu ñi di waajal ñi di sañse prêt à porter yi di nekk ci salon de coiffure yu defaru oui Youssou Ndour l'homme du super étoile vous donne rendez-vous ce samedi au cosaan entrée 6 000 balcon 10 000 VIP 15 000 rendez-vous au cosaan night avec Youssou et le super xew-xew baa ngoog événement baa ngoog ndakaaru njaay ndakaaru jël job yëngooti na déglul sa sa yëfu band yeeg yooyu hors antenne nga koy defee. <laughs> man dama bandi innocent bu mag laa. man lig laa signé contrat. ah yow lig nga signé. mais après ba mu ñëwee laa dégg ay coow coow. Mhm. mais maa ngi toog rek di xaar amul ñoo war a bëri. ok ci contrat bi. di ko mën a yàqal dafay bare. supporters yi tax ñuy sonn. avanceurs yi luñ bëgg rek ci la ñu nekk. am na ñu la mën a wax Modou Kaay. suma yaay dem na Ndar. rakk yaay dem na Ndar. après. du ma perdre ba lekk na avance du ma perdre. ma rakk dem na Sër moom. suma contrat maa ngi ëpp ma ñoo di nekk. am bi ma rooti na déggal. man aw ma promoteur. combat dina am bëre ci kàttu yàlla. noot tabaski ana lan mooy tendance su tabaski ana lan moo xew ci tabaski bi. li gën a fës ci tabaski bi li xew ci tabaski bi moom lañ leen di wan ci mode tabaski dinañu dem ci saalu TFM bu mag boobu saal bu bees tàq boobu def fa ay défilé yu mag ay défilé yu grandiose wane styliste yi nga xam ne ñoo dàq ñaw ci Sénégal wane leen fësal leen ñu wan ñu lan mooy tendance su tabaski bi. pour ngeen gis ñu modèle yu bees yooyu nag élevage bu nekk da leen ni ko. ci mode tabaski TFM. ñu ngi leen di xaar ci TFM ak mode tabaski wala bu ngay gis suñu création yi. da nga bëgg bokk ci mode tabaski wooteel ci service commercial bu TFM 33 869 91 92. ñu la waa Touba Matina Couture dañoo amoon ay collection yu bees yu ñu war a mayee ci mode tabaski ak TFM. man jili création maa leen di wax ngeen préparé parce que am na collection spéciale tabaski. ay nouveauté yu bees muy mag di xale le loo sentir ci ñaw rek boo bëggee gis rendez-vous bi TFM la mode tabaski. même bu fekkee ni da ngay def coiffure mën nga bokk ci mode tabaski mode tabaski ce sera bien sûr sur la TFM et nulle part ailleurs tabaski bi li xew ci wàllu coiffure li xew ci wàllu ñaw. ñu wane ay ñawkat yu xarañ ku ci bëgg bokk 33 869 91 82 rendez-vous ci podium bi. seetaan leen Modou Tabaski fii ci TFM.